di am mbégte di dellu siwaat euh, si seen euh, jotaay bu mag bi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall euh, di jotaayu émission Jazboul Mouride di leen si ziar bu baax a baax tàmbalee si ziar bi Cheikh Mouhamadul Muntaqal Bachir mbakke di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool tamit ànd ak wër mi Serigne Touba jamono ji <coughs> di ñaanal bu baax a baax ak ziar Serigne Cheikh Jëmb Fall mi maam Cheikh Ibrahima Fall suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak waaye di beral nuyoo ak ziar Serigne Cheikh Ngounda Fall. mu maam Saliou Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall di suñu yaakaar tey ak ëllëg suñu borom kàttanal ko ba li mu bëgg liggéeyal maamam ju tedd ja maam Cheikh Ibrahima Fall mu defe ko lu koy njortam te ànd ko euh, mbokki taalibe mbokki leen ziar bu baax a baax am mbégte dellu siwaat kon euh, ànd ak euh, sunu jëwriñ sëriñ Mamour Ndaw Baye Fall si jotaay bu màgg ci weer wu màgg xam ngeen ni ñu ngi si weeru gàmmu waaye jotaay boo xamante ni ñu ngi am mbégte suñu Mamour ànd kaak kon mbokk yi nga xamante ni ñoom li ñu feroo keur mam Cheikh ibrahim Fall mo gën lepp muy batu la ilaha illallah di mbok yi nga xamantene dañuy yëngu kon ci turu yalla yi Serigne Modou ayda Fall mi ñepp xam di ziar bu baax baax waye Serigne bashirou nias mu baax mi nga xamante ñepp xam nañ ko si turu yalla yi and ak Serigne Ousmane Diouf mi nga xamante ci si kanam dina gëna leer inshallah bu ñuy bu ñuy euh, si euh, si kar li leen taxajuk xam ngeen ni ndigal molen leen taxajuk inshallah allah dinañ ko yaatal legi. gannaaw biñu ziare serigne Mamour Ndaw Baye Fall jébbal ko kàddu gi asalaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf serigne Alioune Badara Mbim. a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. wa anzirara hal wa rasaya wa jinna wa shaitani wal balaya ma habalayi wa ma amradi wa bridat anqadi li aradi assalamu alaykum mbokki julit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu top fi ci sen télévision Lamp Fall noo ngi leen di nuyu baax te di leen ziar di jiital ci nuyoo yëpp ak ziar yëpp Cheikh Mouhamadul Muntaxa di sàkku ci jullit ñëpp ñu ñaanal ko mu yàgg fi lool te di ñaan naa lim naan ngir liggéeyal ko sëriñ bi lépp yàlla na ko yeggale ba sumb ànd ko ak moom waaye ñu ngi koy baax sëriñ Cheikh Jëmb Fall mu yàlla tey mu toog ci bopp njabootu maam Ibrahima Fall ñaan mu yàgg fi lool te ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maamam yàlla na ko yeggale ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaanal mbooleem njabootu sëriñ bi yëpp mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi ak mbooleem seex yëpp eh, di ziar bu baax a baax itam mbooleem ñi nga xam ne saa sun dañuy topp ci jotaay bi mu jotaay bi di bu murit ñu ci waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall tay xam nga sëñ Aline ni nga ko waxe rek mhm. ñu dalal jambar yi nga xamne ñepp rañé nañ leen ci njabotuk maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. muy e, ñi nga ñe Cheikh Ibrahima doon wax jur ba fi ak gërem ba fi ñoo fi tok ndax kenn ku ci nekk say maam ci yoon wi lañ e, ximmee mhm. liñ am lepp ci lañ ko amé yalla dogalé tam ñu dem gëna yok seen pas-pas nak. ci li nga xam Cheikh Ibrahima ñoroon nako lool te moy turu yalla wi nga foko tuddé sa xel dem ci mom muy batu la ilaha illallah nga xamne Cheikh Ibra daana yóbbu na ci gor fu ne njabotam gi tam ko ci melni seigne Mourou Moussa Fall ak mboolem ñuko fi massa wut rek buñ tambalé ci mom danañ mën dugg ñepp rek kenn ku ci nekk tam amon nga ko ay kuréel yo xamne ne la ne sa bir kër sa su ne ñuy tudd yàlla eh, jëmb yii fi tew nak tambalé ko ci Serigne Bassirou Niass eh, Serigne Modaay Dafal sëñ Ousmane Diouf ñom tam di ay jambar yo xamne ñepp ragné nañ leen eh, ci turu yalla wi ñu ci ñu am ci mayna am ci cër tey ñu fa yéene nag teew fii ci Jazboul Mouride euh, waxtaanee euh, tur yàlla woowu sikkar si nga xamante ne bii euh, saa su ne ñu ngi koy faral di def di ci bëggal mbokki taalibe yi mm-hmm. waaye ñu sampal ko nag ab daayira xam ngeen ne daayira boo xam ne dañoo fas yéene rek ñoom tuddukatu yàlla yëpp nga di ci daje mm-hmm. di waxtaan waaye tamit di dajale seenu ñaq mm-hmm. di ko jox ki fi nekkal Cheikh Ibra Fall waaye tamit di gën a mën a teg programme mu sikkar si ci ci yoon ndax ku ne xam na ne sikkar bëri na koy gis rek mu riir du sikar te eh, sikar dafa am aw yoon mhm. dafa am yoon woo xamante ne bii mag ñi nga xam ne ñoo ko fi njëkk def ndax Cheikh Ibrahima am na ci yoo xam moo ko joxeeloon boppam mhm. du ñàkk ci biir jotaay yi sax dana ci feeñ mhm. yoo xam ne daan nañ ko ko yëkkati yoo xam ne moom moo ko daan fente maanaam eh, dégg naa ci lamiñu Baye du Niang mu ne ma ci turu ci lamiñu Cheikh Ibrahima la njëkk dégg mu yëkkati sikar booba mënoo ma sama maama nelaw di magam ñu koy denc Cheikh Ibrahima di ko gunge moom koroog moo yëkkati daaj mag ñi aw kon loolu bokk na ci li ko ñoraloon boppam loolu danañ ci dikk ci biir jotaay bi waaye nag ñu fas yéene dalal ci jëwrin yi nga xam ne tey ci ndigalal nag sëñ maam Cheikh lañ fi ñëwee moom sëñ Serif Assane ndax ku ne xam na maam Cheikh Zikroula moom Cheikh Serif Assane di xam ne ñoom ñu ngi foofu ci liggéey université Touba bi mhm. moo tax mu yabal jëwrin nga xamante ne bi ak ci turu Cheikh Ndoye Baye Fall mhm. ak mboolem jëwrin yi rek du ñàkk sëñ Modou ñoom buñ nuyoo danañ ciy dugg sëñ Aliou Badara incha allah jërëjëf sëriñ Mamadou Ndaw kon jox kàddu gi sëriñ Modou Aïda Fall mu nuyoo mbokki taalibe yi bu ko defee ñu mën a tàbbi si waxtaan incha allah waaw bisimilah bisimilah ñoo ngi ziar bu baax a baax baax baax di jiital ci ziar bi sëriñ Mountakha Bassirou di ñaan suñu borom defal ko wér ak kattan ak yéene liggéey sëñ Tuubaa yëpp bu defee ko li mu soobee ak njaboot sëñ Tuubaa yëpp di ñaanal sëriñ Cheikh li mu faral di ko ziare di ñaan suñu borom doon ko wér ak kattan ba li mu yéene liggéeyal borom Tuubaa noonu la ko moom ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall yëpp di dugg ci mboolem bundu kër Cheikh Ibrahima Fall yëpp di jox ñëpp seen suñu loxo di leen jox seen wàccuwaay di leen ziare tey ñaan si délégué si diwaan Cheikh Fall suñu kaddu yéen a fekk ñëpp ci jàmm. di jaare mbokk teel bi ñu bokk ak waa Dóor bi. muy sëñ Bachir ñu ñu àndal sëñ Bachir Niass mu sëriñ Mbacke Ngour Ndofane ak sëñ Ousmane Diouf mii nga xam ne Baye Fall la di Baye Fall Daaru Salaam ak yow sëñ Mamour ak sëñ Aliou Badara ak waa daara ji yëpp daal. alhamdulilah. ah nuyoo de lañ bëggoon rek. waaw mu ne. waaw maa ngi jëfe ndigal rek. waaye dana kéemaan.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 لا إله إلا الله فلا إله إلا الله مصاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله مصاب لا إله إلا الله لا إله إلا الله منصرف al moomu de jaam ñi fan macha allah sëñ Mourayda Fall incha mbokk yi dinañ ko gën a yaatal ba ci euh, daaj yeeg xeeti si kër yam yëpp incha allah gannaaw bi ñu joxee sëriñ euh, Bas Ñas moom mu mu mu mu nuyoo incha allah euh, sëñ Bas bisimilah. auzu billahi min shaytaan rajim bisimilahi rahmaani ñi ngi nuyo baax ci turu serigne mam Cheikh Fall mom Cheikh Serif Assane mom mam Cheikh Rahim Fall ak ci turu serigne Cheikh Ndoy mi sa borom dogal mu top ci suñu jël ben wax nak ñi ngi sàkku di ñaanal ak di siaré serigne Cheikh jëmu Fall di ko ñaanal ak yag ak wër ba li nga xam itam moy naa li maam Cheikh Rahim Fall mu fekk yëpp yalla nako agalé nan na naale bopam agalé ko té ñu and ko mom mom mi fiy Cheikh rafal nak ñi ngi jubloo sakku mbégteem ci li ñuy wax modé ñaan ñaanal touba Tuubaa muntaha Muntaxa sama borom yagal ko té wéral ko ba lim bëgg ligël liggéeyal touba Tuubaa lépp yàlla na def ñu ko soobee té ñu and ko mom mbolam tali kër sëñ touba yi kana ci bobu diko doxal yalla na ko sama borom defal taw deppal dëppale ko ngërëmal sëriñ bi ñi sant baax nak di gërëm bu baax itam ci tew gin tew fi ci daaray Cheikh Ibrahima Fall ji te ñëw fii itam ngir liggéey bi nu maam Cheikh Ibrahima Fall di liggéeyloo ñu ñëw fii itam teewal fi mboolem kuy tudd yàlla rek te sëñ waa tax sa sa jëwriñ di Cheikh Ibrahima Fall fu ñu mën nekk ci àddina bi rek ñooñu lañ fi teewal lu ñu fi wax itam seen kàddu lañ koy waxee ndigal lu ñu fiy joxe itam ci seen ndigal la jóge loolu rek la ko wuntu lépp nag weesuwul jëfandikoo ndigal lu bayiko ko ci Cheikh rafal seigne Cheikh Fall jëmb ni diko ko ñaan ak yàgg ko wér te diko ko sàkku nag ci mbooloo mi faaye tool di ko digg dégg suñ kaddu ci ci ak ñaan ñi ngi koy sàkku man mi di wax yéen nag maa ngi ci ñaan gi di ko seigne Mbacke Fall seigne mi sama buntu ci kër Cheikh rafal Fall sama borom yagal ko te wëral ko jërë ngeen jëf ah, bismillah la ilaha illallah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 fa la ilaha illallah la ilaha illallah faal fa la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah fa la ilaha illallah la ilaha illallah Mustafa la ilaha illallah macha allah sëriñ Basiru waaw moom de tey moom jotaay bi moom mbokk yi sëñ Mamour tey moom jotaay bi moom mel na ni jotaay la ci wàllu sikar incha allah dinañ ko gën a yaatal gannaaw bi ñu joxee sëriñ Ousmane sëriñ Ousmane Diouf moom it euh, zikrullah mu mu mu mu nuyoog mbokki taalibe yi rahmatullahi wa jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax di sunu njëlbeenu wax ñaanal sëriñ Muntaxa am sëñ Basiiru mi nga xam ne moo fi nekkal sëñ Tuubaa sunu yàggal ko fi lool ba naal yi nga xam ne naal na ko yëpp rek mu àggale ko te ànd ko moom ci barkeb sëriñ bi di siyaare sëñ Cheikh Fall jëmb moom bi mu fi xoolee sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall te mate ko sëkk Fall noo ngi ñaan suñu borom bàyyi ko fi lu yàgg lool ba li mu yéenee liggéey lépp mu jëfe ko na mu ko bëggee tan ànd kook moom ci barkeb sëriñ bi di wax ne xam nga ñun nag danoo am ñaari tawféex ñun hmm. ñun danoo bokk ci Cheikh Ibrahima Fall bokk ci sëñ gaawaan waaw ñu féete leen ko sëñ gaawaan it sama sëriñ di bàyyi faal ba muy sëñ Ibrahima ja maandoon ak sëñ gaawaan ca Màkka ja te ku fa tawaaf ca Kaaba ga mu tax nga tawaaf ndax dooleem doole yi sëñ Touba mu ko joxoon sëñ Ibrahima Dia kon ñoo ngi fa ziare waa Daaru Salaam gépp ziare sama wasila ba fa ne sëriñ Maamun ñu lay bàyyi Fall lan ñuy togg ndogu def lépp gëm Cheikh Fall Cheikh Ibrahima ko ko gëm rek yow xamal ni sëriñ bi nangul na la ak koo mën a doon waaye boo xamee ne dañ koy am fenn fooy xool dañuy xam ne eh, sëriñ bi nangu la waaw foofu lañ ko xam mooy mooy kër Cheikh kon nooy saar baax sama eh, wëllëri yi sama kilifa yi sëñ Basiru Ñas sëñ Mourayda Fall ah sëñ Mamour ak eh, sëñ Aline Badara mi nga xam ne moom dañ ko yàgg béggee te gisuñ ko ndax ab yaram léegi rek ñu ngi ko koy leeral di ñaan mboolem lu ñu fi wax rek yàlla na dëppoo ak tawféex ci barkeb Cheikh Ibra Fall waaw xam naa kon ndigal la ñuy jëf rek ñun sax xam naa moom waaw ṣẹ́yìn ọ̀làlá ilá ìlàlá abo rijalulahi la ilaha illallah rabbana la ilaha illallah أبو رجال الله لا إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله أبو رجال الله لا إله إلا الله ربنا laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah maam Sawru Faal aboo rijaalu laay laa ilaaha illallah rabbana laa ilaaha illallah la ilaha illallah Mansour Fall abo la ilaha illallah la ilaha illallah Fall la ilaha illallah. macha allah ah sëñ Mamour sëñ Mamour daal kon jotaay baa ngoog xamna ni sax yow lay bay nga ubbi. Hmm. ndax euh, say su ne laa ilaha illallah xel yep dem ci mam Cheikh Ibrahima Fall. Hmm. noko ko waaw xam nga seigne Alioune batara lolou mom do luñ ri ñoo waxtane ko du lo xam kenn ko ne dañ laa neexal ci ruq ne la de ko wax du lu Cheikh ibrahim wax ni su ngeen waxate la ilaha illallah tegg leen ma ci. kon jaglek sunu borom la. Cheikh ibrahim nak da doon ko xamne lim liggeel yalla jaare la ko ci sangam bu tedd ba Serigne Touba Cheikhul Khadim moo tax lépp lu ñuy tudd ci lu baax faw mu am wàccuwaay ci moom te ku ne xam na ne gémmiñ gu yàlla xar Cheikh ba neewoon na bëgg ñuy wax laa ilaha illallah rek tax yàlla xar ko lu ko ñoroon la ndax ca gébb mag ñi nee nañ bu masaan di ñëw moom bu egsee ci ñoom dañuy daal di yëkkati turu yàlla ngir ngir ngir gaanalee ko ko teralee ko ko bi ñuy sëkkar nag te fekk mi ngi ci biir ñu sëkkar ba mu yàgg comme taxaw nañ ci biti nag taw ba suub ndox mu bëri ñuy sëkkar di ba mu yàgg comme gis nañ ne ndox mi bari na ñu daal di ñaan di seelu bi ñaanee nag dugg ci biir na dañuy seelu taw bi Cheikh Ibra na gees sëñ yaaram mbay ma daan ne ca wetam nako yaram, yaaram mu na ko ko turu yalla yu may dégg lu tax ko sëñ Cheikh mbay yaram diko ziar bu baax ak badian Rama mbay yaram tawarkal la turu yalla yu ma doon deg lu tax ko ñu mba ndax dañuy seeru taw bi muna ah, na ma toog ci biti ñu jël ses bam togol toogoon tegal ko ko ci digg taw bi waw ndox mi soti ko ci kawam man ngi don sikkar gis na Cheikh rafal ngi ci biti di tawte ñu def kenn par kenn di genn bimu mu ne dom lutax ngeen bayyi turu yalla mag ñi ne ko Fall dañ doon seelu taw mu ne ah doom bañ a xëm bañ a tooy bañ a bañ a tooy bu leen bañ a tooy doom ndax yomal xiyaam kat dara mun leen tax a lakk ci jahannama dara mun leen a lakk ci jahannama kon boobu bu leen bañ a tooy Cheikh nee na ku bañ a xëm doo bañ a bu leen bañ a tooy ndax yomal xiyaam dara mënu leen a lakk ca jahannama kon boog doom tur yàlla day fekk sa kon loolu rek benn la ci ne Cheikh Ibra ñoroon na ko ba fo meuna taxaw ci kaw suuf ak lu man di wacc sa kaw ngay tuddu mm. yalla lu bëgg nga dag ko hmm? tax kon day delluwaat ci ne boo tuddu sunu borom mi ngay tuddu mom nga wër di yek fi nga koy tuddee kon caaxaan waru cee bokk hmm. caaxaan waru cee bokk waru cee bokk hmm. loolu nag mat naa bayyi xel ci ñi nga xam ci jamono ji ñi ngi koy tuddu ndax tur wu sel wo xamne tuddu da nga wara sel da nga wara yek ngay tuddu moy kan yek magam gi nga xam ne lenn yi caaxaan doo ko ci boole ndax Cheikh Ibra noonu la ko bëggee woon ñoroon na ko ba moo ko njëkk yëkkatil boppam Baye Abdou Niang moo ma ne sama maama nelaw di magam doonay baayam ñu da ko denc Cheikh Ibra dëbbe mag ñi aw nee na ma sax boo gisee doom léeg-léeg njàmbaas gi ngay dégg ndax léeg-léeg nit xam nga li ngay ki ngay waxal li nga yëg ba di wax ak moom nga jek nga ci bir wax ji nga diko denk sa bop mm-hmm. mag ñi loolu lañ daan def ndax buñ daan sekkar bam yag da nga deg ku te ndax am ko ko mas di sekkar ci kanu Cheikh ibrahim bam yag nako sañ nga ñoo japp jaay mba nga yewuñ sax di ñu maye fi Rafal nag ges na ndok wax ngeen deug dama liggéeyal asgor bam fayema len mm-hmm. waaw asgor bam fayema len sañ nako mm-hmm. nako ya di nga neel fal gak jaaxalu la waaw ya ma doy dafa tis nak falal gor ñi bi dañ da waaw Cheikh ba ci bopam mo njëkk waxal bopam bañuy gungé sama Mudu mo momé ñuy sekar mo nan ko Ahmadu demal ma ngi ñew dootul yag gunga yëgg baaxu ca neena ma làmmiñam sama nopp gor gi ma nettali de kenn nettaliwu ma neena ma Cheikh ibrahim wax may deug waye loolu lepp nak moy lima ma wax manam wax la ci bir wax waye ki koy tudd da ko wara xam du tiagen ne lu ko neex mu wax dedet du tiagen ne it nu ko neex mu waxe ni dedet ba ci sax xin yi mi andal sabab la xin yi dina ci ñew sax wa dinañ ci dik ndax mbaa xam nañ ne ku tedd ke ko digalon Cheikh Ibra Fall hmm. waaw Matar gay warag ku njëkk a foor ci njëriñ waaye Matar gay warag ne wut bant xóotal ko la sëriñ bi waxoon nee nañ Cheikh Ibra na wut bant xóotal ko muure kow der di ko jottee kàddu ku jugee fii fi man ba mata gay warak moo ko fool koro ci njariñ buñ del suwaate dana ci indi ay leeral suñaa leen ba dara xam nga nag koo am gën taraani te comme murid yaa ngi toog te am na luñ bàyyi jëlee Mbàkke ku mel ne sëñ Moulay ak ñoom sëñ Ousmane ak gars Bas na luñ laa bëgg a ñëw sax ndax ndax dégg nañ sëñ Moulay rek eh, yëkkati ab air mhm. nu dégg ko moom it mu yëkkati ab air ba mhm. sëñ Ousmane Diouf mi mhm. eh, mu mel ni xeetu sikar yi bari na am na si sikar yoo xamante ni sikarus aw la mm-hmm. am sikarus benn benn mm-hmm. maanaam mooy xeetu sikar yi mm-hmm. lan nga ni si mën a indil si tegtal waaw kay jërëjëf sëñ Ibrahima xeet sëñ Ibrahima de xanaa neex na lool xeeti moo xeetu sikar yi ni ko sëñ Mamour waxee léegi dafa bëri ay daaj yoo xam ne dafay bàyyi ko ci mag ñi te xeeti daaj mën nañoo bañ a sore ndax yàqu sikar nit ki day jàpp benn daaj di ko sikar ba mu jox ko ci fanweeri daaj hmm? waaw nit day sikar baag mu dee boo gisee ñu roy la baax yow mën a wax sa bopp waaye nit mën na sikar fi ne ba yàgg nit di ko roy ci biir roy gi fi mu toog rek moom amoon na ci benn daaj est-ce loolu ci xeet dégg-dégg la hmm. waaye galanu sikar moom dégg ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki ko dëggal ci yàlla tax ndax niko señ bi waxe legi Cheikh rafal so dege déggee bu Baye rek lu mbolo bëri bëri ñu gessu mhm. fula la jël deugal moom mom lañu xol fula la deugal tin motax buñ ko tuddee japp ci la war dem te personnalité murid wessul gëm sëriñ te Baye fal loolu rek ci kar nak day alli Cheikh rafal mhm. ndax fu na Baye fal ya nga ñew lay ñëk deglu moy tur yalla wa mas naa wax ci benn jataay ne boo gisee tur yi lu bari mu gënal ma ko ba ci xiin yi mu àndal ñi ma gis ñuy jàng seen xaside di lal lu di ko ci teg nin fonkee seen xaside yooyu naa fonk xiin yi ak tur bi ndax kam dugg ci noppam mu di ko def mbaa ñu def ko ci kanamam ba ma xamee ne Cheikh Fall tudd tam nangu ko bàyyi ko ca la ma gënal lu dul moom eeri nag mag mu baax mu ñox bàyyi sëriñ Fall Sam Fall yàlla nañu ko sa borom fayal wax nañ ci wax nañ ci lu bëree bëree am na ci air boo xam ne wax na ma ci lam ñu bopp ne ma bu ñu ko yëkkatee fii ci Mbakke sëñ Seexal dugg ci biir ñu dugg ko yëkkati yàlla si daa daa jékki-jékki soob taw boo xam ne ta dum nawet te dum nawet am na ci air boo xam ne moom wax bopp ne ma Seex Musaa Fall ba mu ko dégg dafa wax boppam ne yi de fi ma di ko dégg lu ma bëgg def ci góor mën naa ko ci def lu ma ci bëgg di mën ci dindi fi ne man ngaa xamee kuy dund Cheikh Ibra Fall dëgg-dëgg ci tur yàlla mënoo ko yëkkati lu mat ñaari lu mat ñaari minute ci moom te gisoo mu soppiku yàlla nañu ko yàlla fayal ku baax wax naa ko bu yàggu rek ne ko tur yi nga am lépp lu baax la sëñ maam Cheikh ñu ne Fall. Cheikh Sula xam mhm. nga. ñoo sëñ maam Cheikh Sikur laa. waaw bu ñu xasee wax Sikur laa rek lépp mat na. te secrétaire lépp ne. Mhm. ni sëñ maamun waxee léegi lu ci ñor la. air mhm. yi daa bëri léegi. am yu bàtt ne am na yu bàtt wut. waaye ci jëmmi ko koy wax la. ak fa ko jëlee. comme neex mën naa jël eeru sikar dem waaye ji ko waaye sikarkat bi sañu tëjal eeru waaye di ko sikar moom ki nga xam ne mën naa fekk dëgg mu gën a ci lu mu fooyee fokkat la bu ñëw ci dëgg rek te teewluwu ko waaye kenn ci dëgg nag warta mën a teewlu mu fo foofu la ñu waroo sikarkat dëgg sikarkat dëgg dafa am ñoo xam ne seen alal la moo rek lañu am ñoo ñu def mukkul ko yàq ndax suñ ko tegee suuf rek ñoom dootuñu am dara ni mu ma leeree na ñun li olof di wax sànni tàccu genn lañ ca muy Cheikh Rafal ne la ma leeree ni ki ko fonk noonu noonu lañ mel ci moom fëri ngeen bàyyi fal yëpp maasa nañu xam ne bon deen ba ëllëg itam ñu na Cheikh Rafal amatut noonu rek na nga ko sax waaye bu den ba lëg tey ñu ne Cheikh Rafal nga ne am na leneen lu amul daanaka ñoratunu ñoratunu gan ñoratunu ñor moom rek air bi sëñ Modou yëkkati léegi xam nga ak bi sëñ Ousmane yëkkati mm-hmm. boo ko dee déglu day day mel bokkatu mm-hmm. te sëñ Modou mën naa ba bii mu yëkkati léegi mën na ko mën na ko yëkkati ba remplacé ko bee léegi rek léegi rek ci jaraay mm-hmm. moo tax la air yi ñoo ñoo lëkkaloo waxee ni mën naa mel lu waroo waaye air yi daanaka ñoo lëkkaloo waaye nag ci biir ab air ci ngay génnee di air bii kii si kër bi laay ci la air bii génnee lu yàgg la ci kii njëkkee woon na ko daan na dafa rek bii sëñ Ousmane mu day da may ko may ko rek bisimilah bisimilah laa <laughs> ilaaha illallah mamsuru faal abo rijaalullaay laa ilaha illallah laa jagaram maam faal aboo rijaalullaay fa la ilaha illallah waaye moom moo ko moom mooy baax da da daan duroo waaye est-ce que est-ce que maa bëxru boppam la mm. li ma doon secret bëxru boppam la waaye li wax ma ci nekk lépp teewul day dugalante kàllaama yi mën naa wute waaye lépp loo ci dàq rek mu fekki moom dëgg la waaw ñoo mm. dañoo bokk lu ko tax a jóg mm-hmm. fii ne ñu bokk leen tax a jóg ñëpp ñoo bokku bokk jataay ñoo bokk lu ñuy wër ñun bu ñuy teewlu télé bi tey ca fan dëkk mm-hmm. ñu tudd taate si Ibra Fall mm-hmm. ñu seen ni ñaar ngeen tok dañu mëna dañu mëna a fa ndigalul jëfé jëfé li nga ni wax na dañu xamné ne ñeem bu Cheikh Fall amatul moom ñoo moom yem eh. dañu wër leen wa duñu ñu ko am bokkut ak ki nga xamné nak dafa bëgg loolu bëggal ñëw di ci wax mm-hmm. kooku lu mu japp ne mu la ci bëggal moom la ci boole moy bërxal yi eh, ngay jangal nga di ko ci karal bu fekkante ne da nga da nga da nga bëgg lu ko bëggal rek ba la bëggal mbolo ma mm-hmm. ci nga xamné trom lañu déglu lo wala ci fekk ci boo soo génnee daamam si kër ci bëgg la ko bëggal mm-hmm. loolu loolu day wane ni kon sëñ Mourayda euh, maanaam li woon démb mm-hmm. ba léegi am na ñu koy doxal tey maanaam sikkaru démb gi mm-hmm. waaw ni ko ni ko sëñ Mamour waxee maam Cheikh fa daan na yëkkati mag ñi daan nañ yëkkati tey jii niñ daan yëkkati nga xam ne boo ko déggee mu dugg sa xol loolu ni ko sëñ nga xamante ne lii maanaam ay ay da ngay da ngay si ñoom ak góor yàlla dëgg sax mu ngi am ba léegi. waaw loolu mooy mooy li sëñ Bass na wax rek loolu loolu la bëgg a leeral. Mhm. am day wax ne daa bëgg a leeral ne sikkar si fi newoon démb ak barki démb ba tey moo fi nekk. moo fi nekk mhm. mooy fi ne nii ñi nga dégg ñuy sikkar ñëpp mag ñi la ñuy sikkar. koo muy sikkar boo ko daxee ca mag sàngam lay ñibbi. loolu moo tax mu mu mu leeral ne la li may sikkar ak li sëñ Ousmane di sikkar ak moom li muy sikkar lépp boo ko daxee am na fu muy fu mën a day ñibbi waaw waaye nag ñi koy wax mhm. kenn ku ci nekk yow yaa koy indi ci sa mel sa sa sa kàllaam ak bopp nga fexe koo nga fexe koo secret noo xam soo ko dégloo day mel day am ak la waaye day mel na benn la waxeen wax maa moo waaw tëggar ga ma go mel ne daajoo xasida yi rek waaw comme ci misaal rek nga jël xasida mooy bu daaj ko fukki daaj ñu mm. bokkul teewul yaa ngi ci mooy ba léegi rek waaye liñ fii sikkar lépp loo ci dàq mu dem ca mag ña mm-hmm. te nag mag ña ñooy sikkar nag waaw sikkar si mm-hmm. dëggu tëgër te neex tegu ci yoon mm-hmm. maanaam baatin na ca nga di ko déglu bu neex sa say nopp mag ña la ndax fen li fi mag ñi doon si lépp démb tey jii ba tey jii saa yoo ko yëkkatee day mel ne tey la waaw kon loolu teg gum tegoon ci yoon ak neex gam neexoon ak fullaal bu ñu fullaaloon mm-hmm. ak pas-pas ba ak pëseef ba moo waral muy dund ba léegi nii mm-hmm. nii ndaw ñi nga ma yàlla dogal ñu ne ci tur yàlla di ci yëngu foofu la war a teg suñu tànk mm-hmm. waaw ngir ëllëg suñu relève ñu war a dox foofu te am nañu si teg seen tànk ba léegi ndax su leen déggee ñoom ñi sëñ Mamour ni ñu yëkkatee nga xamante ni ñoom kat fa mag ñi tegoon seen tànk fa lañ fas yéene teg seen i tànk ba léegi waaye nag mbir moo gis nag am na si ñoo xëy ni xëy na du seenu ku yaafuus wala du seen waaye seenu ñàkk xam moo tax xëy na ñu duggee si aku bëgg waaw seenu bëgg ak seenu moo tax ñu duggee si noo xëy ni daal wax dëgg yàlla euh, mun dañoo wax kon sëñ Ousmane ni mm. looloo tax kuréel gi jug ngir maanaam ndax lii ñu ngi koy doogu dégg gulet mm. kuréelu xidma zikrullahi ngeen am taw feex nag ni ñu ko waxee sànq si ndigalu Serigne Cheikh Fall jëm mu fi maam Cheikh Ibrahima Fall ngir dimbali ak xamal ñi nga xam ne ak bëgg moo leen si indi waaye daanaka du du du du ak xam bu leer daal bu ci ne. waaw euh, sëñ Aline Badara noonu nu ko waxee rek noonu rek la demee suñ Bas mi daanaka saraana ci lu bari <laughs> ak sëñ Modou mi tam daanaka sax doyoon na waaye noonu rek la demee ndax euh, bi nu amee tawféex yi maa ngi koy wax léegi ci biir ne am na ñoo xam ne ñoo nu fi jiitu woon doon ko def damay dégg ci sama xarit bu baax muy faral di wax ne ñooñe ñaar gar na len ñenn ñi dem nañ ba mënatuñ ko ñenn ñi seenu fan mat nañu juggé fi té lolu mi ngi mi ngi ci ñun ñaan suñ borom ñun mi koy mayé may nu fan wu gudd ba liñ yéne ligël Cheikh Rafal ci turu ñu jëf ko wa yoy yépp nga donte dun nañ témer rek fuk ak juromit mom yoy nga ñëw ci suñ kaw bi nu ci tawfiixam mom mi fi Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. bi ba dem fa mu ne ngeen def ma leen ko digal ngeen ñëw kon na ngeen xam ne maa leen ko digal te maa ngi ci seen biir mhm. yaakaar naa carte sëñ Bas mi yoroon carte wan ciy bokke da koo daal di jël ci loxob sëñ Bas mi mhm. moom sëñ Cheikh jëm def ci poosam yaakaar naa delluwaatu ko ba tey def ko ci jë taf ne na ngeen ne maa ngi ci seen biir te da ngeen ci am ndam ñun ndam loola moonu ñor ndax xam na ne comme wax na ko rek ndam dana am dañuy yalwaan sëñ Touba nag mu dimbale nu ci ñun ñu bokk ca ñu yóbbu ba ca ndam la ñoo ngi yow ak sëñ maamu rek ñëpp ndax comme tudd na ko rek ndam loolu moom dana am yàlla noonu sëñ bi suturaal ban man caa bokk mm. waaye tur wi damay wax ne ni ngeen ko waxe nii léegi ma Cheikh Fall dañuy wax ne day wax ne saa su ne mooy ñagub sëñ Touba mu ne woon it ba yowmal xiyaam fu sëñ sam mbër ma sam mbër ca wet ga loolu am na ñu ko déggut mm-hmm. ndax Cheikh Fall moom moo gëm sëñ Touba nag fu sëñ Touba samp mbër ma samp mbër ca wet ga dafa si ci tuddkat yàlla yii ñun ñi nga xam ne ñun la ko yàlla jagleel ci jamono ji ñu di koy yëngu yàlla buñ ci gis nag suñu bopp ndax coobare Cheikh Rafal la am na ñeneen ñuy ñëw te day wax ne cër loo xam ne cërub ku ganegut àdduna miñ ci ku ci toll na nga ko rafetal kon gëm nañ ne ñun li nu jàpp mooy mbër yooyu Cheikh Rafal sam samp ñun dañuy ñagu say jànkati xasida yi man loolu laa gëm mm-hmm. ndax tuddukatu yàlla yii xew moom nii mu demee nii daaw demee nii nag kon yokku am na Cheikh Ibrahima am na lu mu ñu defal ci feex ndax bu njëkk nag dañ lay tàmbaliloo ay jàng rek bu njëkk dañ lay tàmbaliloo ay jàng rek waaw nan nan wax li am waaye fanaane ko moom daawut am nag sol ci nag lu loo xam ne buñ ko compté nag mu mot fukki junni daawut am waaye kon tur wi moo gën a riis lu mu mën a doon waaye ca ña ko daan defal ak nan ko daan defe waaye ñi Cheikh Ibrahima dimbale tey ñu bokk ci ñag yi bi ñëwee te nañ ko noo xam ne ci ndimbalu Cheikh Ibra Fall xam nañ ne lu dul lii lee ko gën ndax Sëriñ Tuubaa mii sëriñub Cheikh Ibra Fall di yaakaari jaam ñëpp dafa wax ne du faaliwu ma ku ma linkaar boo ma laajee dama lay yabal ca la jiitu xablu te jaadlu ahlul kitaab wala maa ngi fàtte wala si kur lay akbaru la fa borom wax mhm. kon Cheikh Ibra bu ñëwee jël ko boole no ci ci ci ci ñagam yi dañuy gëm ni lii tawféexi Cheikh Ibra Fall la mhm. waaye looloo fi mos a ne tur yàlla waaye ci ko daan defee nag ak ñi koy def ñu ni ko bas waxee yëg-yëg bi ak pas-pas yi ci lay dese mhm. waaye ku ko teg fi ñu ko daan teg rek am ci li mag ñi daan am ak wér <laughs> loolu ñu teg fi ñu ko am ko li mag ñi daan am ah, sëñ Mamour mu am xeeti sikar soo xëy ni mhm. maanaam euh, maanaam dafa dafa yëpp kër Cheikh Ibrahima Fall la waaye boobu moom foo ko gisee rek wala nga dégg ko rek mhm. maanaam sa xel mi yëpp day dem si euh, Euh, maanaam Baye Fall ci ku si bokkul sax mën na noo wax mhm. muy muy muy sikkar si nga xamante ne dañ koy wër te ñu bëri di ko tuddee wàllu Sam Fall mhm. waaw Sam bi si waa kër Cheikh Fall Baye góor yi mhm. waaw di di cosaan mu ngoog mu ngoog mu ngoog buñ si ñëwee mu ngoog bëgg naa boobee ñu wax si tuuti doo ko ñëw si si si si benn benn wi ak xiin gi lu am solo lay doon waaw xam nga xam nga wër bi sax Mhm. boo xoolee euh, day day loo xam taarix la rek. dëgg la euh, ci euh, defe naa su ma juumul. waaye lu am solo la ndax day wane yërmande ak bëggante ak soppante bi nga xam ne am na si diggante. si si dafa dugg ci biir. dëgg la dafa dugg ci biir. dëgg la waaye boo dee xool ku ñuy wax Sidi Karim. te mhm. la ma mag ña daan wax. Mhm. am na ci koo xam ne moo jur sama ndey ne moom nee na ma maa ngi fàttalikoo jamono bi nga xam ne. tànk ba daraan metti mu mu mu mu léegi nag ñu digaloon ko noo ko nag sooy soo koy taxaw benn place boo taxaw benn place maanaam danaa am taw feex daal nee na ma bis boobee sax la ma yoroon mu di aw yet nee na ci sama gannaaw laa ko damm eh. ndax nam ca meloon waaw jamono jamono yu yàgg nag moom daana loola bokk na ci ñi ko fi ñi ko fi samp muy wër bi ku ñuy wax Sidi Karim mm-hmm. taarix la bu gudd nag mm-hmm. waaw jamono si Modou Moustapha Fall yàlla dogal na itam mu doonoon loo xam ne suñ ko daan tudd ñoom mhm. lañ ci daan yëg comme ni ko sëñ Bass waxee day doon loo xam ne jëmmi seeni boroom la ñuy teewal ci seen kanam duñ gis leneen ba tax na luñ ca fas mbaa luñ ca dogg ci saa si nga koy daal di gis mm. ndax nag eh, Cheikh Ibra Fall moom ah, yàlla dañuy ñii dañ koy dëbbe ñii aw ñii aw ko waaw lañuy mm-hmm. dëbbe comme noonu nga gis kuréel gi rek mm-hmm. ñii dëbbe ñii aw mm-hmm. tey Cheikh ndoy ci misaal laa lay jox ñu koy ziar bu baax bokk nag te di kenn ci kuréel gi kenn ci kuréel gi. xam naa du ñàkk sax après dinañ ci koy wër ku mel ne ñoom sëñ Baara Fall ak ñoom ñëpp. boo xoolee noonu ñu koy wëree. maam nga xam ne bu ñu dajaloo nii rek tàmbali ba mu yàgg bañ gis ne mat na kuréel gi mat na. ñu tàmbali mhm. noonu la ko Sidi Karim daan defee ak ñoom daan àndal ca jamono booba. Mhm. moy sox bobu ngay gis ci sa bobu stank ba la woon waaye gis nga lo gis do ne dafa am lu juuf moo tax gis na juuf na fi ne ci jamono jii nga da ne bëggu ñu sax jek ci sikar taxaw ni bam yag rek faaw rek ñu def ko kurel di ko wër ci lañ koy gëna a ci lañ koy gëna a lool nak day wone signalin badara ne Cheikh Ibra Fall lu mu fi bayyi rek am na lu tax te nim melon ci tour wi mbolam ko ko fi massa wootu nak mm-hmm. ndax sëñ Moussa safa loolu mu netali ku ñu wax bay ci Modou Baye Baye Masala ci am mii yàlla na ko fi yàlla yàggal. ñu koy ziar bu baax bokk na ci ñi ko daan yëkkati ci kanam sëñ Modou Moustapha Fall. lii sëñ Modou Moustapha Fall na ko. ne ko su ma ko su su ma ko déggee fu mu bëgg yóbbu góor danaa ko fa comme loo xam ne da nga koy dégg rek dégg ko nii rek yóbbu fa góor. rawatina nag ki taxaw di ko yëkkati moom. dégg gi rek sëñ Modou mu Fall nee na mën naa yóbbu góor. waaw kon nag loolu message la rek ci ñi ko yëkkati. Mm-hmm. lepp lo gis nit ñu ne day tuddu yalla da koy sikkar te amu ko ci wala mu mel lu cay delto gannaaw wala dara jappal ne sel gi moo des ndax nak tur la wo xamni du and ak tiaxan du and ak lu taq sell ndax ñi koy def sax ta xam ko deug mhm. do gis mukk ñu tuddu yalla te ñu ba nopp ko wër waaw gis mukk do gis mukk tam ñu diko tambali te du dañoo fas ba noppi mhm. ndax xam nañ li ci nek moy lan mhm. dañ ko caaxaane duñ ko wute dërëm duñ ko wute dara dañ koy def kep te yalla tax loolu nag mat naa bàyyi xel. ndax foofu doguma la sëñ Cheikh Ngounda dama ko mës a dégg. Mhm. mu ne turu yàlla wi ku koy yëkkati. Mhm. Euh, maanaam di ci boole leneen loo xëy ne day nuru lu tax. Mhm. ndax nee na faa soo ko yëkkatee rek malaaka yi yërmande yi ñoom ñëpp wàcc nañ. ñëw di teewlu tur wi. ak di la ñaanal jéggal suñu borom ak yërmande. waaye bis bu ñu gisee sa jëmm loo xëy ne bokkul ak. maam nuru na luy xaw luy tax rek. maam dañ lay móolu. loolu day jëm si dellu ginnaaw gi ngay wax moo kenn ci lu nah, dul laa ilaha illallah looloo ko gën a dañ koy bàkkeeloo ak ñu bëri sax ku mel ne sëñ Mudaay dama ko gis ñu ak lu ci sax ba lu ñu tudd yàlla dañuy bu ñu amuk der dañ koy yeew ba mu dëgër ay nga xam ba ba yeew ba mu dëgër ñu fas yéene nag ko da danaa la wax benn mbir ci sekkare gis nga der nga gis gëm Cheikh xam nga der ko rek dafa da nga da nga war wara, da nga maanaam li nga takk da nga ko war a jox cër. dara parce que am na lu waaw am na am na lu tax nga nga nga yeew ko. Mhm. parce que kuy dem noonu da da doxee yi itam rek du yeewu deram. Mhm. koo gis muy yeewu deram day mel ne ku jëm ci xari mhm. wala koo xam ne am na lu muy waajal. der googee Serigne Cheikhoum Soxna Faat Tàkk Jóob ba nga xam ne bokk ñi mujj wax ak Sëñ Tuubaa ne di jaay Cheikh Mamadou Moutada Sëñ Cheikh Faat Tàkk nee kum jaar ci sa yaram du dem sawar. alhamdulilah tey ak nee na der googee saa boo ko dindee foo ko wékk malaayka dañ koy fanaanee seer bu bët set gis naa koo xam ne ci samay ci samay kilifa la bokk mm-hmm. nee na ma su masaane dajeeg man ma ma takk der gi moom sëñ Cheikh Fatta ko de jël addiyee na ma ko jàpp ma ne ko sëñ maa lekk sax mu ma ko derga ko moom dama laa li ma lay leeral rek mooy sëñalin Cheikh Ibra bàyyiwu fi lu ñuy fooyee bàyyiwu fi dara lu ñuy fooyee gis nga mm-hmm. loo gis lu ne Cheikh ba nee na luy gën dëkkut yoon muy turu yàlla wi muy sikkar si wër bu loolu ngay gis muy taxaw fu bàyyi faal yi ne fu kilifa ñëwee rek lañ la njëkk a xam ne dañuy wax naan saxaar bu jubee garde corne fu ñu tuddee yàlla ba ci ñi mu jaar nekkal Serigne Touba Cheikhul Khadim mhm. fu ñu dajeeg bàyyi yi dañuy njëkk xalaat ci ñoom ak li ñuy leen di njëkk a soññee mooy na turu yàlla yu jib sëñ Sidi Maxtaar maa ngi fàttaliku ndog yi ñu ko daan mujj di yóbbul sax léeg rek ran wax ne mom dafa taamu Baye Fall yi ñëw ba ci biir kër gi ndax turu yalla wi la bëgg di dégg. sa tamit yag ta ah, jeex yag ta jëf na du nee na mën na ko fekk mo fekk wa lolu loolu seede fekk ñoom ñëpp ci bokk yam nak kon lolu lañ xamé Cheikh ibrahim Fall xamé ko ay ñoñam nak cheikh Abdou da nga dan fanano poroxan bu ne ci wala poroxan jeex na tak moy ah, ngontum Cheikh ibrahim Fall mooy ngontum suñu borom doole ngërëm te te xolal ci jaar bu baax soxna maam jaar ci soxna maam jaar ci sa waaw mo nga mom jambar la mm-hmm. xolal danaa la euh, wax sëñ Saliou Mbacke xasida waaw soxna Seynabou Thiam waaw ñun Baye Fall yi ah, xool sëñ Saliou Mbacke xasida mu sëriñ Fallou son yi mi ngi may dégg ñu ngi koy ziar bu baax a baax di jàmbar li ku bëgg Cheikh Ibra Fall nee na ma daanaka saa bu ma nekkee Touba danaay def semaine bu jot ñaare ma dem barabu Cheikh nee na ni may jànge barabu sëñ Touba dem fa di ko jàngal xasida mm-hmm. noonu lay demee barabu Cheikh Ibra itam di ko jàngal xasida dafa ko ko addiyee ndax nee na ma ni ma xamee ne E, e, suñ borom maanaam e, ku riir ci sëñ Touba la gën a sawar. Mhm. nee ci laa xam ne sëñ Touba yi ku riir jëm ci Cheikh la gën a sawar. léegi nag nee na ma. Mhm. Baye Jibi Diouf. Mhm. Baye Jibi loolu ko waxee kër sëñ Amsa mu sëriñ Chouaïbou. nee na ma Baye Jibi Diouf nee na ma dama dama maanaam xama woon waxtu laa koy teewlu mu naa mën a ma waxtu fajar. nee na ma suñu jullee fajar waxtu woowu nga xam ne bëgguma dara lu ma ko lu ma ko lu ko gàllankoor moo tax waxtu woowu laa koy fanaan di diglu ba mu leer nañ ñi mooy sikaru Baye Jibi Diouf te loolu it xam nañ ko ci ñeneen ñoo xam ne du xam naa si yàlla dina am am na ñu mën a tudd ci njaboot surtout sëñ Tuubaa yi ñoo xamante ne bii moom it dem dem na di waxtaan ak ñoom dégg luy riim ci suuf mhm. te defe naa suma jur Baye Jibi Baye Jibi Diouf la di doomu sëñ Sohaybu sax moom it xam nga kon wax ne turu yàlla bi dafa doon loo xam ne mhm. dafa mat a waxtaane comme jotaay ji mhm. ngir ñi koy yëkkati ndax fu ne tey daanaka waxtaan yii ñu koy waxtaane ndimbal la ci ñi koy yëkkati ndax sikar nag jamono jii ñu toll dañ ko bëgg nit ñi dañ ko bëgg koo gis rek fi ne léegi daanaka bëgg naa doon ab sikarkat waaye nag ñu xam li ci nekk xam cër bi ba pare xam tamit niñ ko war a wormaale ak fiñ ko war a teg moo tax li ngeen def lu am solo la muy daayira bi nga xam ne samp ngeen ko ci ndigalal sëñ jëm ko te itam lu ñor sëriñ bi la ndax li tax mooy keroog bu njëkkee samp mëgay mooma woo sëñ Maguette Niang ñu ngi koy ziar baax sëñ Omar Doumbia yaa nekk ci wetu sëñ bi. te ñoom nag lépp loo ñu tudd la ko lu ne sëriñ bi dëgg la ndax ñoom sëriñ bi moo nee na moo ñoom ñooy samay loxo ñooy samay bët ñooy samay. te ci saasi lañ ma daal woo leeral ma daayira bi na ko ñoom nag loolu buñ ca yëkkatee seen kaddu le woo la nga xam ne xaaruñu sax yow nga woo leen waaye ñoom ñoo la wool seen won na ne loolu ndigal la loolu lu ñor sëriñ bi la moo tax nag képp kuy dégg suñu kàddu nag mhm. tey tudd yàlla mhm. daayira bii moom am nga ci wàcc waay bu wér a wér mhm. a la cee yàlla dugg gi am na solo lool euh, ca nga wax sànq li nga wax si sëñ Saliou mu mu mu sëñ Fallou Choy laa lay dëggal sëñ Baara mu sëñ Choy bu waaw noo ko noo ko seeti guddee na lool waxtu woowu nu ngi koy ziar bu baax ñàkkul ni mu ngi ñuy mu ngi ñuy teewlu maanaam di ko di ko di ko dégg muy boobu guddi gi na lool mu mu xamal ne moom lay wéttalikoo hmm? maanaam si kar soo saabu faal googu ak bàyyi jibi juuf nga xamante ne ñoom bari nañ si hmm. bu ñu leen tuddee si njaw sëñ tuwaa gi bari nañ si hmm. ñoo xamante ni tur yàlla ni mu leen Baytaala Gay moom sëñ moom sëñ Baytaala Gay moom sëñ am sëñ Abdou Khadir murit la Baytaala ku bëgg sëñ Cheikh Ibra Fall dëgg la jàmbaari sëñ Moustapha Abdou Khadir kele la ma jox kele nee na ma lépp bàyyi jibi juuf est ce que alhamdulilah waaw nee na waaw kon kele la ma jox nee na ma sikar rek nee na ma lépp daal nee na ma daal moom bàyyi ji daal defal ma ko ci ko ci te nga door ko mhm. ndax ndax ni ko ni ko ni ko waxee sànq rek mhm. alquran li mu si indi mhm. si si si si si maanaam baatu laa ilaha illallah di ni mu kawee inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar xam nga ni al am julli da lay da lay da lay lay tere da lay dindi si yow maanaam lépp lu jëm si ñaawteef ak yu ñu sib waaye gis nga lim si teg wala zikrullahi akbar wallahu yaalam maanaam maatas naawun nga xamante Manam maanaam suñu borom dafa am yu bëri yu muy andal kon kon kon kon sëñ sëñ sëñ bas maanaam ki tuddu yalla ana naka la naka la wara mel nan moy ay melokaanam kii tudd ay jërëjëf waaw tudd ko def yàlla bi day ñu baal ma tuuti ci sëñ euh, bismillah sëñ Mamour lim mu ci ci si sambal Sampal boobu mhm. daa am lu ma ñor bismillah mooy si kër tudd Sampal Mhm. sampal dëkk la. dëkk la dëgg la ñu ko xool wi kum dinaa ci cité kenn ndax boo. bu fu ñu dajee am jàmm rek ñu ne nan leen saam. sëñ Cheikh Baye góor moo sañ saam. loolu ñu dàkk dëkkam. alhamdulilah tey. xam nga ak bëgg dafa am solo. dëgg la. ginnaaw bi Cheikh Rafal mii mu wax. bi mu mhm. jàllee ci tur yàlla. Hmm. ñu di ko tudd ci turam hmm. li ngay dégg ci tur yàlla ñu tudd ci turu sëñ Saliou Abdou diggatu ko ci yeneen tur te bëgg ko ko may te bëgg ko may kilifa ma dara kam hmm. ma bañ ko def dong di ko bërëx di ko tudd woo na ba ma ñu mën a mana kau dem ba yàgg ñu wet benn bis mën ko sëñ Cheikh li nga def ci tur yàlla day sa tur mun caa bayi ko dafa nama mën ma caa bayi laay siklus bayi góor ñi waaw bàyyi jibi mi wax wax na ma ne dama ko ndax jibi jibi ndax man mas naa man naa dellu si ba kenn di si kanam ni bàyyi ji mënuma ku mënta dellu si sëñ Cheikh Fall mënoo dellu si Sikar ku mënta doon ku mënta dellu si sëñ Sikar si Sikar ndax ji bi Sikar sëñ Cheikh bu ñu ma ànd Sikar daan na gën tegalal bi toog jàkkaaroo ñoom daan na yónnee tam ne du foofu hmm? Hmm. bàyyi sëñ nganaaw na bis mu def nanu ko yónnee ci ndaw ne du foofu ñu yëkkateeti mu ne ba yàgg ma dégg mën na ko nee ko fi mu bëgg ma teg ko na ko fa teg ndax mooy Sikar si bi mu dikkee am na lu mel ni lu ma ñaan jox ko bi naa daa mel ni rajo buñu biis ba sëñ bëgg la <laughs> kooku li mu dund yàlla ba toll ni loolu moo ko may loolu hmm. ñu ñaanal Baye Djibi Diouf bu baax fa mu nekk yàlla na sama taas ci barke di siyaare bu baax nag Baye Diop Sikour la ak Baye Badara Combaan hmm. di suñuy bàyyi nekk ba Sam Fall te ku dégg tur dégg lañ ci hmm. ñu deen siyaare baax di siyaare bu baax itam sëñ Cheikh Ndoye ak sëñ Mata ak sëñ ma sëñ Mbaye Fall mi nga xam ne mm-hmm. moom tamit fii ci kër sëñ Salbaab góor moo ne tànk yooyu mm-hmm. Baye Dame Ndiaye ñëpp nga xam ne ci air boobu la ñuy dund uh-huh. soo gisee ma tudd ñooñu jamono ji ñu toll ñoom foofu lañ foofu lañ ñànkateeku mag ñaa leen toqi mm-hmm. Baye Jibi daan leen jiital am na ci ñoo xam ne Baye Jibi leen daan jiital te Baye Jibi néewtoon deret hmm? waaw ak boole ñoo ñu nga gis Baye Jibi néewtoon deret ci sikar hmm? sikar si ngay laaj mooy si démb ak su tey wuute bi bëri na. Hmm. ba ci yarin yi. ba ci yarin yi waaw mooy nii xuluñ woon ñi ngeen toppoon. dañu daal gëdd def loolu loo xam ne boo ko defaloon ko ne tey yi xëyatuñ ko. allahu man bës naa yalwaan naa ca liggéey barab maam Serap Fall ba indi bàyyi sëriñ hmm. Abdoulaye Ndiaye si kóor laa mii keroog bu ma fàttali ko bi mu koy naan heure er, heure rijal bii jox naa la ko yàlla xam ne maa ngi ci wetam te dafa maa gis na ma sa wàllu ñëw allahu akbar mos maa fàttaliku itam fenn fu nu ànd dara génn ngay xaar yow du ci am da ngay fas yéene kay li nga defe ko si new nga xam lu mu bëgg nga defal ko ci nga xam ne si kersi da koy tarbiyu tarbiyu nga ko def danaa la xamal yaar nag ku ko tarbiyu ci kii defi la ko jàngal ba mokkal ko sañoo ko mënoo ko jàngal kenn ndax sañoo ko ndax moomoo ca dara si am ndigal day am loolu sax kay foog foog nga somb day laaj nii de te jant bu la ci ginnaaw ci ginnaaw benn tëb yàlla itam mm-hmm. ba am ci PR mm-hmm. ba japp te tol na nga tol nga ni mom ba ñank wormal bi sa jot do gis ken ko la Cheikh Ibra lepp lépp la li nga laaj ci sikarkat bi ni mu wara mel waxna ba tay ne ko digg muy tudd yalla ñoo degg la ci mom mu am wer xol bi ben fep ki ñaan man ci ne wala benn fépp rëy moko tudd waaye waaye nangu la ilaha illallah ndax tur yalla dañu wax ne day melni am xëcc ak weñ gu <laughs> am xëcc boo ko teg ci ñu ñuul bu yàgg la weex ngay gis ah, day set mhm. <laughs> loolu la mel ci xol nag koo gis mu di ko tudd tamit dëgg ci moom dootoo gis ci moom ak rëy dootoo gis ci moom ba gedd na sa doo gis ci moom da gis ci moom itam ak iñaan ci kenn ndax xol bi day weex tàll ci koy tudd itam day ku ñuy xool te ku ñuy xool war nañu génn lu rafet mhm. xam nga da ngeen ko olof ne diw day mel ni mbaam mi sa fi téere ba def na ba am na safu amul ndariñ ba am na njëriñ indi téere indi téere doonte jàngu téré mo ni téré yi jang seetal li fi tam fim na diglé téré ñoko amul ndariñ njëriñ waaw mën nañ ko bañ amal ndariñ waaye indi nako ko té wuñ ko ni ba nga jang ci sax yërmu ne yalla yaatu ñatu ko ne man na jëgël mbam ci ci leppam da nga indi téré yi ndeysaan téré li tay bay wali mbiru mbirum maam Cheikh Ibrahima Fall lii ma la wax ci seen Cheikh Baye góor suñ demoon tey fi ci kër ci ñu nekk noonu ba diko indi ci xéen yi ñuy wax si di day royaat bi mu indee loolu ba kenn mënu ko cee ñàkk tudd ni la xiin yi ngay dégg sañ seen ndigal doomam ju baax ji mhm. yàlla sama borom yàggal te wéral ko ni la mel ci sikkaru xiin yi ba fay ne waa kër seen ndigal fi la fekk ndax mhm. defal na ko boppam ni nga wax ne maam Seex Faal na mhm. sëñ bi yëkkati na ñu tëggal ko sëñ bi tëgg naat ñu yëkkati booba booba bamba ji melut nii si kasi ak siwut fii am na bis mu dama nettali boppam def gu ko def def ca kees ba mu xeeru sànni fu mu ko doon defee kon xam nga ne fondement moom foo ko mën a fekk dina métti waaye sax gem sax léegi ba foo dem fekk ko fa loolu taw fii xam dégg naa ci lamiñam mu ne bu sa bàyyi sampee garab ba nga tokki faxe la samp goom bu sa doom ñooy tokki waaye doo yem si sa garab baay bu yàggee garab doom ah, waaye kii yàlla moom yii force mu indaale ko hmm. day bëgg Cheikh Rafal gëm ko wóolu ko moo ciy jiitu kañ koo dégg ñu tudd ko yàlla te ñi ñëwul moom bu tuddee yàlla yàlla nangu tudd ah, waaye ku yàlla nangul ci tur yàlla nga bëgg si rafal wóolu ko gëm ko te boo gëmee doo linkaar man day xam naa ni nga jublu jàpp naa ne mooy penku mhm. waaye ay moo duggoon dégg na maam Cheikh ne nee penku lay nee penku waaw ah, loolay wër fu mu joxoñ foofu la de bëgg gëm a rek boo ci dugg dootoo linkaar loolu nag mag ña ca loolu la nu raay woon mhm. mag ña itam li nga wax léegi da ci am solo bañee si kar ñoom waaw mhm. Cheikh mu toog ngay sikar ah daa doy amul foo jëm. dàq lépp loo dàq lépp dafa doy fi mu toll nag li ci indi bërxël yu bëri ma di la ko wax. sëñ bi wax na ko bërxël yi ay léeb la xam naa air boo xam ne siiw na loolu di ko te maa ngi daan xam naa kan tudd ba ba air ba jóg. waaw air bii ñu réglé fi ne. waaw di ko ne matt mi. maa waa daka ci ci ci turam la génnee. te daa mënoon donc ndongo si Moussa Wade daa mënoon ma jàllee ma ma ya. neex. Hmm. bis nak mu dem do ngay tok sen gi nga mu ñëw rek air bi juddo ni jëkk-jëkk jóg mam ada hmm. kase ma bo ko re mu texe ko re mu texe la la musala la la lii koy ergo. ndeysaan. lu ñu bëgg a waxante. ci sikkar lañ koy waxee. loolu dong lañ xam booba. ndeysaan. moo la loolu moo la ñor li ñu la bëgg a wax ci sikkar lañ la koy wax li ñu lay toon sikkar lañ la koy toon. ndeysaan te it am na am na am na si yoo xëy ni ngir ngir ngir kon comme comme bu ñuy gunge. am na si am na su boppam soo xëy ni moom ngir suñuy. gunge waaw dafa am loo xam sax. gis nga bërëxal ñu koy wax waaye bu njëkk ñoom dañ ko doon defee ab soñña da cee am am sëñ Mamadou mi boo ko ba ma bëggoon sikar tey sikar ko ba xool ko ne ko sëñ Mamadou yaay bàyyi Cheikh Ndaw ci biir sikar si lu mu war def sëñ Mamadou mu xool fa bàyyi Cheikh nekkoon mu ne fa ah. waaye laa mu nekk fa ma mu yàgg fa ma tëddale ko ci ko digal hmm. waaye su ko jàppee tàgg rek warutuñ ko ca warutuñ ko wax soññ lay doon ci moom hmm. sëñ ma dem tafaar mu baax mi yàlla nañu ko yàlla fayal daf ne tur yàlla fas naaru góor la mu ñaxal ba mu regg hmm. da ngay mën ngaa war rek mbaa mu daan laay fa mu jëm dama fa yegg moom

du bërxal bu ñu tàggaate moo tax du bërxal bu ñu tàggaate moo tax te tudd ko def yàlla bi hmm. li sëñ Mamour wax ne du lu ñuy fooyee hmm. ak a xam ndax ki ko def ren ba déwén mu xool boppam xool xool bi hmm. avancement na du ci yére ki ak yi xew sa xool bi ngay xool dëgg la loolu am solo àgg fa yàlla koo xamante ne boo yëkkatee malaaka yi dañuy wàcc di allaw di ko xet gi nekk sa gémmañ wala ndox mi daante di ko wër dong ndox mi daante di ko wër di tudd yàlla waaw ndox mi mhm. sëñ Cheikh naka ñu teg ndox mi di wër tudd yàlla dandaax daax loo mën a indi tawat lu mu rëy rëy rëy te ndox moom lay fajoo danaa tàng ca naan rek ba tàng naan te faj am na kilifa gu baax gu mag goo xam ni bi ma amee tawat du ko jaaxal hmm. tudd ko tam yàlla la woo tudd lookaa la ba mu ñàkk mu fam ñàkk mbub ma xooj ko ci ak paan naan ca ndox ma wér jóg dem sëñ Cheikh Ndoye mii Baye Fall moo yebale ñuy wax ci yàlla dogal na jamono ji nga xam ne tawat si ñi ngi ñaan yàlla mu yàgg fi loolu te wér moom xamal na ma na ma turu yàlla ma yëkkati ci ak wér waaw moo ci démb rek waaw wax loolu mu mm-hmm. taw suñ kanam mm-hmm. waxtaan nañ ci ndax fi ko àgg mm-hmm. ci njàmbaar ak bëgg ndax bëgg lu am njariñ la bëgg ko yóbbu fi mu ne bëgg li ma am am njariñ da nga bëgg lu ma ta bëgg hmm, rek am bëgg lu am njariñ da nga xam ne bëgg bëgg googu am njariñ te bëgg bu bëgg do jot moom bëgg ma am Cheikh Fall rek hmm. li ma la tudd yàlla rek koo dégg ñu ne mën naa si kar mi ngi tudd yàlla hmm. comme mën a doon bala ñoo nangu tudd yàlla am bëgg gëm gu wóor da ko def Cheikh Fall ak wér boo ko boo def loo ca mën def itam dañ lay lenkaar ñii nga gégg ci mbedd mi sëñ Cheikh Mbacke balla dafa ma soxna ma na gis xam dañu mel dañu day dox ci mbedd bi rek di kanam kanam gi takk rip mhm. ma ne ko am na ci de mu ne ma mooy dama nañ cee fa boo ko dem àjjana ma ne ko ay bu mujjee seen lam yi bu si mujjee dara mun leen lakk kon tuyal am na doole lool am na doole lool bul xam ñooñu fan lan ne waaw Eh, sëñ Modou ah, eh, ni waxee kon kon kon kon sikar daal jotaay la jotaay la moom de lu bari génn na si waaw dégg li mu wax si ndox mi nga xamante ne moom la ñuy mm-hmm. moom la ñuy teg seen digg mm-hmm, mm-hmm. di di di di di ci sikar lu mu mën saafara ah, amul waaw ndax tur yàlla nag moom moo di toll tur yàlla googu suñu borom rafaatal na ko maam Cheikh Ibrahima Fall nga gis ku koy mën di yëkkati foo foo ñu xalaat foo bokk ak nangam dañuy jàpp ne rek Cheikh Ibrahima kër Cheikh Ibrahima la mu ngoog waaye waaye waaye sëñ boo romboon ay yu ndaw yu taxaw toog moo xam foo mën a bokk. nga romb leen rek di wax laa ilaaha illallaah. foo mën a bokk rek dañ naan Baay Faal ba. Mm-hmm. tey loolu nag kon day wane ne kon Cheikh Ibra cër bi mu ci am suñu borom ko jox. Mm-hmm. sëñ Mamour junj sàng si mbiri euh, maanaam si kar si ànd ak galan bi xiin. Mm-hmm. maanaam muy tëgg mi ndax du moo gën a jafe si sikar waaw bu dee ci jamono bi ñu toll nii de. ci sama gis-gis. jafe na lool. <laughs> ah moom ndax moom moom <laughs> am ndimbal ñooñu bas ñoo sama jóg <laughs> ah. ak ku ne sëñ Ousmane ak uh-huh. na loolu si jamono bi ñu toll ndax maa ngi koy waxtaan léegi ak sëñ Ousmane mën a ko sikkar si léegi boo gisee suñu daayira bii nii ñu sos nii muy daayira xilmatu Cheikh Fall bi lëkkale sikkarkat yi mm-hmm. ñu yàlla dogal ñu ay sikkarkat te dégg ko tàbbasi ci doon toofeex ci ñoom mm-hmm. mooy bëri na lu bëree bëri bëri loo xam ne xëy na dina leen ump mm-hmm. wala dana ëmb sax noonu ñëpp waaye bokk gi di bokk ci daayira bi dana tax ñun ñëpp mën cee dimbalante ba kenn ku nekk xam fi nga war a teg sa tànk waaw waaye sikkaru léegi si ak sikkaru su jëkk sa am na waroo ngir léegi bëri na bëri na bëri na sikkarkat ni ñuy comporté woo ci wàllu colin sax ci lay njëkke sikkarkat bi normalement saa yoo ko gisee jëmmam rek boo ko xoolee balaa sikkar war ngaa mën a xam ne kii tuddkatu yàlla la mhm. ndax day feeñ ci jëmmam mhm. ginnaaw rapport bi nga xam ne nii ma yàlla jégal ci kàddu ngeen baal ma ko ah. ci rab lay yëngu su la robon ni tey di dox dem bu la bëgg sax cole na moo lay xam ne ndax kii rapport lay <laughs> ah, yëngu ci tur yàlla saw melo rek ku nit xoolee war naa a xam ne kii ci tur yàlla la yëngu kon ñun ñii day sikkarkat di ay ndaw di yëngu ci tur yàlla ne dañ koo bëgg <laughs> war nañoo mën a fexe ba premier comportement mooy nañ doon yàlla danañ comportement bu baax bu yiw mhm. boo xam ne ku ne xam ne dañuy yëngutu yàlla defin weet ñu sellal ko te wéral baat bi ndax Baye Abdoulaye Ndiaye dafa wax naan laa ilaha illallah layut laaxul hmm. layul layut laaxul laa ilaha illallah mhm. mooy sikar mhm. bëri nañu bëri ñoo xam ne ñu ngi biral sikar di ko yëkkat ci kaw nañu dina dégg te xëy na waxin wa am nañ ci yéene waaye tegul ci yoon ndax du xaa laa ilaha illallah waaw loolu de mën a leeral waaw ah. du xaadoo tey ah. tura la amul woo amul woy amul woo boobu woo yooyu eh, amu ci te yooyu yëpp nu ngi ko gis ah, léegi bu yàggee mu doon woy de waaw nu ngi ko gis léegi ci sekkars yi mu xiin yi nga xam ne yàlla dogoon na nit ñi euh, di ci yëngu di ko boole tur yàlla wi bu dee xiin sax daa war a tegu ci yoon ndax noonu daa am nañu ko sàkkoo ak nu mu amee ak ak ak nu mu war nu mu war waaw nu mu war a mu war a demee mm-hmm. ndax lu lu mën a doon rek dañ koo royee ca mag ñi ba mu si ñun mm-hmm. xëy na même bu fekkee sax mën ko defee ni ko mag ñi nan fexe ba teg ko ci yoon ba man bu ko ma ñu gisee xam ne lii donte mën nu ko waaye ñun teg nañ ko ci yoon mm-hmm. waaye ni gars yi commencé di yëngoo léegi ci jamono ji ñu toll nii xaw naa mm-hmm. na dama yàlla jéggal ah, ndax boole nañ si loo xëy ni moom daal kéemaan la damay faral gars yi ne leen yéen na waaye fecc geeg am na loo xam ne ba mu tàggee way wi léegi sax da ngay gis ñoo xamante ne eeru waykatu àdduna yi jël ca mbiri àdduna na loo xam ne ba mu tàbbee si rek lañ ko bëgg a def defee beneen dañ ko bëgg soppi muy yi ñuy wax ay xeeti concert mm-hmm. waaw man moom ba nga nee concert rek am ko ne concert bu Baye Fall yaa ko gën a sikkat si yoonu concert naw ci bu dee da doon ab sikkarkat di def bis baasal ab baas def def maanaam woo say morom yi tudd ko tu yàlla ñu tudd yàlla def ko nu mu gën a sell waaye dem fa nga xam ne nii fa la ñuy yëngoo wàllu saayir mhm. nga defee ko defee boo xam ne daanaka maanaam mën naa ne day day saayir saayir kon fekkee sax day tegu ci yoon mhm. mburite mhm. sax nga ne waaye da dema dema ne ba daanaka maanaam yow mi taxaw di sikkar lay loolaa lay dar dëgg la sëñ loolu yëngu yëngu de waaw ko neexee da day ànd rek te sëñ Mamour xii nii sax daa am boo xam ne fa la war a yem sëñ mi xam ne li may te léegi gars dangay koo xam ne day taxaw di sakkat lu mat fukki dënd ak juróom wala ñaar fukki dënd wër ko dëgg la a dégg tur yàlla wa léegi yamatuñ foofu sax dañ si boole yenn instruments yi lu mel ni ay xalam ak ay xeet yoo xamante ni daanaka lii moom mënatuñ kaa tuddee sikar te li si gën a metti nag mooy ñi koy teewlu wala ñu koy nàngam bàyyi faal la ñuy wax te loolu day mel ni daanaka sañu ma wax ni laalewul dara bàyyi faal xaw ma noonu lañ ko déggee waaye xam naa lu doy waar la lu ñu war a mën a bàyyi xel la te xëy na kuréel gii moom moo tax koo ci ne bokkoo ci ko waaw kon c'est ça waaye nag bëgguma la de Cheikh Ibrahima waxoon na bay Cheikh taal Galo ndax xam nga waame mu ne ko faal nu muy mel mu ne ko ndox mu bëri lay doon waaye bu jógee ci tund wa di wal jëm ci déeg bi mooy ci taataa bi lu mu romb dana ko indaale doom bant yu sew sewaan yeeg xott bi kayit yeeg du ba dara waaye nag seex taal nee mën a faal mu ne ma ndox buy dem ndox rek la yóbbu waaw lépp si suuf la koy bàyyi bis ko njëkkee wax fii benn waay woo ma France na ma lu ciy pexe mën ko fexee doon ndox nag képp ndax boo doon xeer mbaa ngay pem yabra fa ngay des doo ngis nag waaw boo doon xeer mbaa pem yabra doo ngis ne ndox buy dem mm. doom ndox rek la yóbbu sëñ Ousmane mhm. jërëjëf sëñ Mamadou moom. moom tawféex la moom moom daa xorom moom yàlla na sëñ Tuubaa boole defal nu dégg rek. sëñ Alberta noonu nga ko waxee rek noonu la mm-hmm. deme ak sëñ mm-hmm. Bass ak sëñ Modou mi ni ko waxee. Mm-hmm. ñun de tudd yàlla gi wax dëgg yàlla damay wax ne. suñ daayira bi képp koo xam ne suñ borom dogal na ngay tudd yàlla. te ñëw bokk si ci. man nga am tawféex. ndax damaa jëlale jamono ji ñii tudd yàlla nga xam ne foo tuddee ñii tudd yàlla danañ leen tudd. ŋànk gën ko ŋànk waaye ki ko diglee ak ndigal li ci wax ne ndam dana ci am ma jàpp ne képp kuy tudd yàlla te am tawféexu ñëw bokk ci mën nan laa wax ba defeel nii waxeel nii waaye boo tàbbisee rek gis njariñ mhm. loolu moo tax ñu yéene yaatal nan ko xataluñ ko bëgg ñëpp tàbbisi ci ngir jëmi sëñ Tuubaa ndax ku ci ñëw rek dana nekk école ci yow. Mhm. ci ndigalu sëñ Cheikh Fall ci ndigalu sëriñ bi. si si si si njiitalu sëñ maam Cheikh Fall sëñ ak sama sang yu baax yi. Mhm. ndax daayira bi bi mu amee noonu it wax ne ñun ñett ñi ñoo yor wàllu communication bi. macha ñoo ko yaatal. Mhm. lu nu fi wax rek ci ndigalul sëriñ maam Cheikh ak Cheikh Ndoye ak ñanu àndal rek lan ko wax bi fu ñu jëm ñoo ñu jox ndigal ñu ñëw. démb ci ay xat yu xat lool ci la ne woon démb sëñ bas mi bi muy ñëw ci waxtaan wa ab tëli lay indaale jógee ca liggéeyam sëñ Seex jëm Fall daanaka ba guddi ña ngi ca waxtaan wa di xool nun waaje bis bi mhm. bin ñëwee tëddun dara li bi ma woo kii ci fajar gi taal oto bi jëm këram dana ma xanaa amooy nelaw ma ne ko mhm. ginnaaw danoo engagé moom nan engagé rek ndax euh, koy koo xam ne da nga jug ngir liggéeyal Seex Ibrahima Fall ci tur yàlla mhm. lu neex moom waroo koo séentu waaye ñun tudd yàlla gi damay wax ne li ci gën a doon danger mooy gis Ousmane Diouf yorop oto di dem di tudd yàlla baa bas mbaa sëñ Mourayda nga jóg ngir loola hmm. te bari na fi man de billaahi wallaahi taalaahi luy nuru taraangal dool ne toll na ni puso bu ma ko amee ci turu yàlla taxutoon ma dugg ci dama ko bëggoon rek ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall te li ma sëñ Modou mi xam na ndax ànd na ma moom ay at ne ci ginnaaw sama mag hmm. sëñ sëñ Bas mi xam na li may kon nag lépp lu nu lu ci rogalaate ba tabis ñun ci luy luy nuru taraanga rek danoo daf noo dab fekk suñu waaye taxunu ci woon a dugg xamul yaakaaruñ ko ci woon ndax daanaan tudd yàlla ba bët set fanaane naa aw ba bët set bu ma tuflee sama fii di génn ay lumbe deret te duma am ñeen fukki deram te jamono jo lu mu gàtt-gàtt bu buñ génne ci baas ban daan dem danañ yor ñeen fukki junni waaye ñeen fukk moom du ma fa toppee moom demoon naa it ba waaw ka ma doon ka ma doon tarbiyu mos naa wax ña ma ne leen bisa ngi ñëw dana ci am lu ma ci amut loola moom yàlla barkeel na ko ndax la muy doon doon doon sama mag tey mën naa toog di ma nekk ci lépp kon waxewun ak ndamu dañuy waxee lim mën a indi donte nag gone yi dañoo jug ngir léegi bëgg xewal loolu loolu daa am fu muy jaar suñ fàllu daf noo yeewoon dafa am loo ne nii kaala bu balaa ñëw fii day njëkkee fii dëgg su njëkkee fii ci ndigg ba nga dem ba ba laxasaay ga tooy xépp ku ñakk bu fa jugee rek mën a ñëw fii waaye tudd yàlla moom képp ku koy def man day Baye Ablaye Ndiaye fekk naa bu yàggut yàlla na ko sunu borom doon leer wallahi billahi moo ma wax ne ma maa nga toog am na ñaari tuddukat yàlla yu mag yoo xam ne waajur lañ ci man toog mu nett li ca armeel ya ne moom de gént na biig Cheikh Ibra Fall jox ko caabi yu xonq cur kilifa ga ma toogal daal di ne ko daal di koy kafay moom ne kon waajal sa sa këru àjjanaa noppi mm. génnu weer woowu te loolu moom maa ngi toog ndax Baye Ablaye fu ma mos a fekk daf may dóor ne ma yéen moom ay gone ngeen li ngeen ceeb ko indi mook bàyyi ma xet looloo wér ndax ñu bëri tey ñu génne àdduna ñu a xam lan soo ko xam kuy kii waaw kuy wasilam fu ma mos a fekk danaan ma indi yéen moom du ma leen neexal déedéet si daañu badara fu ma mos a fekk indi lay wax rek lu ma fa fekk rek jox ko ko mook bàyyi ma xet boo waxee mu ne bàyyi ma xet ba yaa mas na maa wax ne ma ah doom sant leen yéen nii ngeen di mel ba àjjana ñun na gis nga ni mel ñun nii la ñuy mel ñun kon ñun am nañ tawféex ñun ñii nga xam ne suñu borom dogal na ñuy ay tuut tànk te di ko yëngu mm-hmm. am nañ référence mm-hmm. am nañ fun mën a xool mm-hmm. am na nañ tawféex joo xamante ni bii Cheikh Ibra Fall bu fi nekkee ne la defal lii maa ngi ci seen biir da ngeen ci am ndam waaye ne nit ñi ñëw jàpp ci liggéey bi te xam ne bërigo la ci mbartal bërigo ci mbartal waaw ak wër waaw ñëw gi waaw fii nii fi mu war a yem. Mhm. lu ma ci ñor la. jamono ji ñuy wax ak yéen. Mhm. damay dégg fa Touba. Mhm. ñoo xam ne bu nu yëngoo rek fa nu yëngoo. ñu dikk ramasser seen i xiin yóbbu ko. waaw waaw am na. teg naa ci sama dégg naa ku ne ma. ndënd yooyu ñu ramasse. gis na benn bis ñoo ne ko tere di ko taal. ay kon kon kon war nañoo amug ràññee. tey xëy na Cheikh Rafahi ko ñeme tal yaa man ca dina man lu ñu tudd di tudd Cheikh Rafahi rek ko ñeme tal yaa man. bu ci dëgg na turam sama taxaw du ma ko taal. waaye nag jàpp naa ne melokaanu ñu koy def la. waaye Cheikh Ibrahima ne woon na xam-xam na xamul xamul. xamul mhm. waaye man de. Mhm. war maan naa maam Cheikh Fall war maan gu toll nii. Mhm. te jàpp ne Philippe Mouride war a ne. lu ñuy yor di tuddoo turam di ko ci fëgg rek du ko taal. am na doomi sëñ Tuubaa ji. joo xam ne sëñ Sëndil mi ma lay wax. yu mel ni mi mas naa am. mu dem ba jàkkaarloog moom. ma wax ko ci lu leer sax seigne Cheikh dafa am ma masam lu melni nii ñu dikk jëriñ dënd ci kër gu ko Xudoos ga waaw màggalu ko sëñ Cheikh Mbacke ba ciow am gañu jappante jàppante ñu ko doon jël bi seigne bi xeye ñew tuba faal demande na ba ci Cheikh blad Mbacke ngir japp ne kon ko dañ nek dekk bi kon mo joxe ndigal xeyna bimu dikke mu dikkee fekk ko fi mu ci kaw bimu ko nuyoo bokk seigne seigne seigne waa ci def ni loxo bi ne ko giñ naa sëñ Touba ne lo bayiko ko su man waaw loolu wax na ma ko ci làmmiñu boppam. seex day na nga xam ne jëfandiku si rafaal yi ba saa taxaw dama ci ñaan te yow day ba fii nga ma fekk ma toog boo yamal xam damay ñaan lu dugg am ci ndam. waaye loolu de mosut jóge ci man. kon nag ñi nga xam ne jàpp na ne loolu. dañu koy def de man li ma leen mën a jiiñ mooy ci ña koy def. ndax ñett ñeent nit. ku ne sol la la neex rek di ko taxaw ni ko suñu moo di waxee. mel ni gars yi dox ba daje rek yor nañu di fëgg. ah mën naa ñàkk nag. loolu la rek. tëggin gi nu mu war a. tëggin wi itam xiir ñett rek la. xiin bëriwul. Hmm. ñett ndënd rek la. Hmm. ñetti ndënd. Hmm. am coolo ci mbalax ak xiin. wax naa ba tàyyi ni ndënd mi day woote rek. ñëw leen wuy si boo ñëwee am na lu def ci biir xool ko loola loolaa saf yàlla. te wax naa ba tàyyi ne. mën naa la ko misaal ci ciment bii ngay gis. ciment bii fi mu ne dañ cee tabax jàkka. waaw saa boo jubee jàkk jagi simi daal dugg ci biir mm-hmm. ciment bi ñu tabax ci woon boo ñëwee ñu wax sol sol sa defe naa yaa ci wute mm-hmm. moo tax fee nga fa sol fee def sol benn ciment benn ciment su ko defee nag nen ñett mm-hmm. gis naa jéembe bokk ci loolu am naa ci seere danga ne Sam Fall ab tubaab bu xonq tur ñëw yorub jéembe dugg ci si kati ñu génne ko sëñ Cheikh ndigal ci yërmande ju bëri ji mu ne kii xamul waaye li ci bëgg bokkee bay leen ko ndax mu mu tudd ci yàlla loo ci loo ci tax waye ñet ñet ndënd rek la mm-hmm. tëggin wi itam mm-hmm. dafa am ndax bu fekkante loo dégg mbalaxkat bi dëgg ko ngeen ko nga di ko ci tëgg mi ya delloo ki taxaw yor nay nopp romb na fa ndon balaxeem war a max na koo dégg dégg nga boobu dama yaakar yaakaar ni balaxkat bi sax ya ko wara a dimbali ci gal ñu xin gi ci gal ñu xin bi waaye du mom mo la wara a ndax jëf jël rek lay tëgg waaw jëf jël day wot rek bu wootee ba ci biir amna lu ñu def sa buñu tëggee ba nga ñew ñëw fekk ñu yor radio di tud yalla sa buñu tëggee ba nga ñew mm. ba nga fekk nga ko yor radio di wax laa ilaha illallah kii daa woon nañu ngir ñu wàll si rek ba ñu wàll si rek lii la ñuy def hmm. dugguma la waaye ki ma wax de ca mag ña nee na ma ci nekkuk Cheikh Ibra sama sama maam di jigéen la woon waaye su ma saane dégg ñu fëgg ko danaan bërit na bàyyi Soda Fall jot na ndigal ma nga maa la wax loolu de jot na ndigal waaw dañu lay woote rek sëñ bi ñu ne sëñ bi ne buñ xëyee nañ defee nangam ak nangam nañ xëyee ak nangam waaye ku miin carrière kay hmm? mag ñi wax la la ca xewoon hmm. mbaa ñu wax la la woon ca ngasum raay ma wala ca ba ñuy liggéey ju may njariñ ji sax de mm. loolu xewoon na de amoon na de ba ci xel comme ju yàggut ji sax ñun ñëpp fekk nañ ko mm. nga war a xam ne soññee la looloo tax man ma ci wax day woote mm-hmm. day woote rek loolu tax ma wax nag ndax fa Touba mm. loolu dafaa commencé am mm-hmm. te xam ne kuréel bii li mu bëgg mm-hmm. su ko amee ñii tudd yàlla ñëpp dikk tënku ci ku ko defe def ne wóoru fu ñu la fekk dañ la arte dëgg la mbaa buñ ci jëlee say bagage itam mu ne denn ko jox waaye dinañ wax yow ca kanam ña la téye mhm. laaj loo doon def mhm. ndax boo ko tegee fii de mhm. alli maam a Rafal de te feeg mënoo génn Cheikh Touba mun doo génn ni Touba ndax bàyyi fale ak xini ànd dëgg la dëgg la mën a xàmmee ñi si bokk ak ñiy ruur looloo nuy nag ndax loolu ñu ni jafe mooy li la wax léegi rek ki nga xam ne moom rek la am muy alalam ah, kooku du ko fooyee waaye ki ci wàll si nag ngir li suñu Ousmane wax addina ndax si daa am fu mu àgg Cheikh Rafal day lam ñu ca digaloon nan si kar ngir yàlla liggéey yoree ko suñu àddina nañu yàlla liggéey nag yoree ko suñu àddina sikar ngir yàlla liggéey ñu def yoree ko suñu àddina eh. maa ngi jégalu dagguma la suñu suñu demee ba ab woykatu saayir am fitu wala sañ-sañ ñu jël eeru sikar yi nga xam ne Baye Fall bi sikarkat bi moom moo ko moom moo ko baaxoo moom sikar ma di ko boole ak ay musique mhm. ak la may musique mhm. mu ne ba ab sa oykar sañ loolu sikkarkat ba moo mo mo jël sa karam bolé ko ak bagage yi kay ndax dégg nga boré mo mo fekk ci mo jël sa karam mom ah. bayé la mo ko wan ko wara bolé booleel ko na fu ñuk ñukk bayé ak musique kat ba mm-hmm. motax musique kat parce que ñi ramass ramasse ñi ramass ci dëkk bi léegi nga gis musique musique saa di jël ay sa karam ñi ñi ñi ñuy ramasse ñi ñuy ramasse ci dëkk bi yépp amna lu tax ñu leen di ramasse maanaam nekkun ci li sëñ bassir wax na amna lool ku ca nekk mm-hmm kenn dula jël ci deug la beur na. waaw ndax ñi jël ci am na ñu ko rañé ñi son loolu li nga ma laaj ñiy wër. dëgg la di ko am fecc. Mm-hmm. am ndukkat am mm-hmm. ci yone la bok mm-hmm. dañuy wax ne. nit bu ñàkkee ci tur yalla rek yëngu. tur yalla da naka ci ko na ci yott ci tok toog yombut da nga bajaw da nga jaayu itam ndax ci bay fa la bok bokk. waaye waye nak amna fecc no ko la ci fekk diko def. Mm. dum ndukkat nak te wako waral. deug la su ko defee nag ka taxaw di si kat donte ma ngay wax deug ya ngi weddi deugum tu suuf. ko yeb ci yow ko ci ay ak wér. am ño xamne dañ ko jappé ar buñ démé kat nan wax ba ñëpp déggunu wala nañ daanu bañ déggunu dog dog ma la jël moom booy taxaw fé diko ko daanu kañ ngay xam ñu bari ak ar lañ ko jappé sëñ Mamour da ngay gis ko xëy ni maanaam laafam sëñ Ousmane mi lay sol tak der gi sol njaxasam jël yi sëñ bas yi rango mhm. maanaam soo ko fekkee si kaw concert ba da nga naan déedéet maanaam melokaan gi nga xamante ne dañ kaa jël ci mhm. Baye Fall gi maanaam di ko di ko def fond de commerce voilà abb ko mhm. ngir maanaam di ciy def yoo xamante ni daal loolu di jaaxaat ndax ndax doguma la sëñ maamu dafa wax sàng lu am solo si der gi der ak li mu mën yow nga jël ko takk ko sa ndigg dem si barab boo xamante ne ay ñu gëmul yàlla ak góor ak jigéen yu jaxasoo di caaxaan. Mhm. maanaam nekk seen biir di fecc fecc ñàkk teggin yoo xamante ni. Mhm. allahu akbar danoo xamul. sëñ Mbacke Fall sëñ Ngunda day daf maa war. sëñ Mbacke Fall sëñ Ngunda. Mhm. ku mandi tur yàlla. Eh, jàmbar la ku mandi tur yàlla. sikkarkat yëpp xam nañ li may wax. mënoo koo tiim ak ñaari ñu tur yàlla te yëgu na soppi ko na. waaw joxe ba jeexal. ndax maa wax ne hmm? moom koy fu mu jeexle ronkañ ak joxe bay ànd ci tur yàlla te suñu sal baay bi góor ko yar moom wax ne ma hmm. moom day lam wax gént la ko jàppee waaye man seen wax dama koy xaw a xam hmm. <laughs> ne dafa dafa dafa gis kuréel buy kar am ko taxaw di kar am ñooy ne wër am ñuy seetaan di jox seen addiye ne maam Serigne Fall tijji benn bunt daane ana ñu doon sikar ñu ne ñu mën a dugg leen ñu dugg mu ne añ leen dañ wër ñu ne mën a leen ñu dugg mu ne añ doon joxe ngir yalla ñu ne mën leen ñu dugg mu ne kàpp ba ak ñom lolu rek jarna def ngir yàlla te maam sefal ci neek allah ci boko xame xamee waaye nit ki mbir force nga dugg ci bir nangu ci aro ñala ci mag do ko xam mhm. saytu ji ko ka lu ñuy la mhm. dañ koy saytu ak melakaan wi mhm. waye am teug so ande nga bëgg foyé sa bop gone ak jigéen ñi dañ cay tax daw topp la nga def dara nga <laughs> mi ngi mel ne tudd ko tub yàlla bi ni ma amee soppe rek bañ naan sëñ Bass sëñ Bass kay sama soppe la yàlla bu sëñ bas defe ne moo saf nit ñi tur yàlla rek moo saf nit ñi waaye du moom xam <laughs> yàlla nag bu mu àgg bañ di bañ di ko nuyu far muy lamsali loxo def na dee sëñ te man naa war na du sëñ moo xam na boppam ah, kon ki la teral nag bañ la foofu da la koor ma ji mm-hmm. fa nga ca jaar ba ñëw foofu mm-hmm. na nga ko teg foo xam ne nag mhm. ñi ñëw sa ginnaaw bu ñu a jaar fa mhm. lii ba sëñ Ousmane mi wax mhm. ba sëñ wax na ma ko ndax ma ne loo xam ne sa doom yi juddoo guddee am na ci cër boo toll na nga ko rafetal te sekkar si ñun suñu doom yi juddoo gudd am nañ ci cër daayira bii nag li ko tax a jóg loolu bokk na sëñ Ousmane mi daayira bi tax ma xam ko ak kañ la siiwoon ci sikkar mosuma koo xam ma ko eram bi yàgg naa koy dégg waaye tey lay doo gis jëmm ji nii sëñ ginnaaw ñëpp yàlla dogal na yàlla boole na ma sëñ Assane Mbaye mm. ca Touba mm. di ko baax newoon ci tur yàlla ñoom ñëpp ñu ne ci waaye moom mii xawma ko woon keroog bañ bëgg njëkkee saf daayira bi asana ma xool ba ne ma xamu Ousmane mii mën na ko xawma ko te ñun dañu daa woo ci ay baas baas yi ñu dem ba ñun ci ñu bopp waa baas yi ñu nit ay jafe-jafe mm. ndax nu ma gisee woo sëñ moo doy de woo ma sëñ moo dugg ñu yuxaloo sëñ Modou kay loolu supporter lay tudd ah. waaye booy tudd yàlla rek bu sëñ Modou waxee yàlla yàlla lay wax ah, ah, rek nga supporter hmm. ñu moom a joxante hmm. ku ne da jàpp ne yow yaa daa xool dara rek waaw kay yooyu hmm. muy Cheikh Ibra Fall te yàlla dogal muy Cheikh Ibra Fall ci lu ñëpp nangu nangu ndax moo coone boppam fam bàyyee la la jël toog moom moom mu nag bi ñu tëw féexalee ngir bëgg ñu booloo booloo gi day tax kii xam naa ko xam na ma kii xam xam naa ko xam na ma ku ma ci magee benn fan rek lijjanti naa ba danaa ko xam war maa de loolu looloo waxuma la baas waaye ku ma fekk ma toog ni may ma la yow dina tax ba duma ma ñëmatu deux tour ci ci wër ci sa kanam loolu dong nga na def ko suma day dee ba kenn ñëmatu jëw suñu lay de jaaré ko ci man kenn ñëwuma jëw jaaré ko ci mom loolu rek jar jar na ko te si amul Moussa Mbacké mbaax hmm. mi na wax ne waxon na ma hmm. ngi na len xewal yëpp de nga ci taw hmm. waye fokk ngeen boole doon doon ben mu doog a wàcc su doon ben itam leneen la ci nek ba karak may dem xewal yi so a wàcc kon booloo ci lepp ne ñam tawfiix na tawfiix wésuut di def dara daje tam Cheikh rafal daayira bi da ñoom ñii kuñ mës a invité ci rajo lan lañ njëkk laaj mooy ndax am ngeen ub daayira hmm. nga ne maanaam gars yi kay ñu gisee gars hmm. la tur yàlla mu la defal nga wax lépp ñu ne yow nag loo ko defal loo ko defal waaw eh, eh, nga ne tekk di xool waaye bin booloo nag sëñ sa jëmb yan nañ ko yàlla fayal ba ñu dem xamuñu tur wu ñu tudd hmm. daje nan daal ña nga jëm ca moom bin si kere baax si yàlla xam ne carte yi ma yoroon bi ko gisee gis photo maam Cheikh ci carte yi ni la def ci jëb def ci poosam bu fi maa fa jotuma ci eh. ni ñaanu maa laa jot ci man na dugg ci poosam Serigne Fall rek man mooy sa yitte ba mu ca duggee mu wax ne tuddee na leen bi eh. yàlla bi mm-hmm. fu mu mën a àgg xam ne bu ñu ko joxee bu mu rafet mm-hmm. mm-hmm. ci tur bi la ko amee ba oto ci tur bi la ko amee ba dépasse tur bi la ko amee seen am ay soxna ci ñu ngénte dëgg la kon nag dajale ci àddina nag yëpp jox sëñ bi nag sukkaat ci mu xool ñu bi ne war na nag ah, te moom teral loolu rek mooy mooy woote bi mooy sunu ti ndeysaan sëñ sëñ Mamour tey tey si bokkee nes si bokkee kuréel gi sëñ Mouride nan la ñuy bokk ci kuréel waaw waaw loolu de xanaa kan ak kan ak kan moo ci war a bokk waaw wax ngeen sikkaru kat sikkarkat li muy mel mm-hmm. mën nañ jàpp ni képp koo xëy ni mm-hmm. mandarga yi gis nga si sa bopp rek yaakaar naa ni ci ci ci kuréel gi nga bokk mm-hmm. waaye na si tabbee waaw na si tabbee mooy daayira bi moom fi ne nii siège mag mi ngi mi ngi mi ngi mbàkke ndax sëñ maam Cheikh mooy jëriñ ji moom la sëñ bi takk suñu kalam sëñ maam Cheikh si kurla mu Cheikh si refa yal na yàlla guddal fanam ci wér toftal ci sëñ Cheikh Ndoye waaye ku ci bëgg a bokk am na ay numéro téléphone yoo xam ne xam naa jombul balaa ñu fay dugg dinañ ko affiché waaw su ko defee nga xam ne sikarkat bi nekk Ndakaar roog fu mu mën a nekk tey bàyyi xel jotaay bi su hmm. ci bëggee bokk bu wootee ci numéro yi dana ko fa mu jaar mën cee bokk hmm. waaye daara bi moom mi ngi mbàkk am nañ tamit siège boo xam ne nu ngi ko samp fii Dakar ba am na sax ay membre yu sikarkat yu bëri yoo xam ne jot nañ cee bokk hmm. ku ñuy wax sëñ Baye Faye fii Thiaroye Touba Thiaroye ak sëñ Siri Fall ak ñoom sëñ Moussa Ndiaye Njenne ak sikarkat yi fa ñoom ñoo fa nekk yor siège boobu am sax nga mais c'est le premier suñu dee daayira Mbàkke ñoom ñoo ngi daayira fii suñu dee daayira Touba ñoom ñoo ngi daayira Dakar Mbuur it am nañ fa ay membre fa nekk yoo xam ne a yaatal mm-hmm. te bëgg nañ ko waaye ngir ku ci bëgg a bokk moom mooy li ma wax léegi rek danañ jox ay numéro yoo xam ku ci bëgg a bokk boo wootee mm-hmm. danañ la wax fi ngay jaar waaye bokk gi moom maam daayira bi moom li ñuy li ñuy def mooy chaque le premier lan su bi joxoon diggal na chaque su ngeen dajee waaw ci weeru tubaab mhm. su ngeen dajee waxtaan tudd yàlla dajale seen addiya daal di ñaanalante mhm. ba beneen la première le première mhm. bu nekk nag dañuy tànn kenn maanaam dem siyaare ji ko nga xam ne gaa yëpp dañu àndandoo ñëw fekk ko fa mu dëkk daayira fa maanaam dajale fa addiya ja tuddal ko yàlla ba xolam sedd ak xoli dëkk doom yëpp bu la borom beneen première ñëwee ñu dem seeti keneen hmm. foofu daal fi ni fa la tollugul xam naa la ci des ci leeral suñu Ousmane dina ko leeral wala suñu ah, euh, kuréel kañ la juddu hmm. ndax yàgg na euh, wala day doo war a juddu hmm. euh, kuréel gi waaw kuréel gi day moom yaakaar naa bu fekkee ne juuma am na at am na am na at ba waral sax ñu am pas-pasu incha allah lii ñu fi jot a liggéeyal Cheikh Ibra Fall ñu fas yéene yut ko ko muy jébbale nga xam ne fas na ni yéene ci kàttunu yàlla ndax looy liggéey nag ba nga am at mm-hmm. yaakaar naa bu fekkee dëgg dëggu am na ci ak bëgg mm-hmm. njariñ war na caa génn njariñ dooy nag ñu bëgg koo jéem a njukkale ji Cheikh Ibra Fall mm-hmm. muy jébbale ñu fas yéene koo def la vingt quatre muy bu suba la bisub sëñ Bassirou Fall alxuraan bi ndax bisub sëñ Bassirou Fall alxuraan bi yaakaar naa mi ngi doon dimanche ñun samedi ja waaw buñ gàmmoo altine altine ja du del si ja mooy bisu sëñ bas bi ñun samedi ja mhm. lan fas yéene daje ñaari waxtu deux heures fas yéene dajoon Mbàkke ca péncum paalin ca mbaar man ko sose woon mhm. dajaloo fa mhm. waxtaan eggale liggéey bi nas fa leen war a nas lépp àndandoo tudd yàlla dem ci ki fi Cheikh Rafal waxtaan ak moom jébbal ko liggéey bi nu nu def nag baax na buñ ko joxee liggéey bi hmm. ñun suñu yoon néew ci ko neexee taal bu ko neexee def la sëñ Modou Mamoun defoon yut sëñ Fallou Mbacke ñetti million teg ci almet hmm. hmm. ca jamono jooja ñun nag foofu rek la ñuy a dox ñu fas yéene nag comme ni ñu ko doon waxee léegi sëñ Aline Badara dafa am noom ne sëñ Bass mii da ko junj léegi muy xiin ya loolu daf noo ñor ñun la ba bu yàggul rek jëli nay xiin te sonn na ca loolu soog caa jot bërki démb sama awkat galas doon na ngénte war ji laay waxee am ñun fa yabal ban ñëwee kilifa gay sef de quartier ba ñëw ne ku fi ku fi ku fii tudd yàlla ñu ne ko Ousmane Diouf mu dellu ne leen ka fii tudd yàlla moom fa wut dëgg la alhamdulilah loolu bërki démb la kon boo ñaar yee mm. ab soññee la ci ñun mm. ak bëgg ñëpp jéem a nekk fii mm. dun ne fin ne mooy nekkuwaay bi ndax sëñ bi bagage yi murid yi moom bagage sëñ bi la waaye nag fin fin ko xayma daal buñ sa yoon tuddkat yàlla yi fekk nu fi ci ma ak melokaan ngir jëmmi sëñ Tuubaa. ngir jëmi sëñ Tuubaa sëñ Mamour bala bala ngay tënk. Ah, ah. Hmm. Oh, moom euh, sëñ sëñ sëñ Bass ndax wax nañ ziar bi nga xamante moom ngeen def. waaye ñu xam ni kon li leen tax a jóg. Hmm. mooy mën a indi ak ràññee. Hmm. ci li nga xamante ne xew na. rawatina ñi nga xamante ne am nañ ak bëgg bu dugg si. kon ñu sax lañ gën a mën a woo ngir ñu ñëw tabbi si kuréel gi. ngir ñu mën a laayante biir ngir wane leen kat fii ngeen war a teg seen tànk mooy li sëñ Ousmane wax. mooy mooy yërmande ji ci am sax. ndax sëñ maam Cheikh ci yërmandeem koo gis mu namp ci Cheikh Rafal dara rek yërmande ji sëñ mu daal waajalal numéro yi ñuy joxe yërmande ji bi nga xamee ne tàbbi na ci moom mm-hmm. ñu jàppoon nañ beneen bis boo xam ne ci ñu ko waroon a jébbali mm-hmm. sëñ bi ne dafa xat mm-hmm. nañ ko fexe yaatal wax ko ci annonce yeeg lépp ngir sikarkat yi àddina bépp xam ne ñoo ko bokk sikarkat nag kuy tudd yàlla la wax te sa yaakaar di sëñ Tuubaa te nga te Cheikh Rafal di sa jëwriñ yow lan waxal daayira bi obligatoire la ci yow ndax bu fekkee jëwriñ di wax ci Cheikh kon na nga ci ñëw tàbbi si ci biir siyaar boobu suñ maam Cheikh wax na ne sikarkat bu ci nekk muy bu góor bi muy bu jigéen bi danoo bëgg bi bii ñu jàpp ne moom la ñu dayee ca mbaarum sëñ sëñ Ablaye Fall Ndarma ñu na ko sama borom yàggal tuwér dëggal ko ne ko a ngi noonu mm-hmm. yàlla na ko sama borom yàggal tuwér mm-hmm. foofu ko sase woon ci buñ ko sëñ Ablaye mm-hmm. a daje na tudd ko tam yàlla bu góor ak bu jigéen bu maa doon buy ñëw addi ji ñu war a tudd sëñ Cheikh Jëm mi fi Cheikh Fall nga ne moo fi daje boobu ba tey ko bëgg nañ koo dolli te ku mën a doon ñun booy ñëw na ngeen di ñaari junni ba ci junni ñu dollee ko addi sharafal bi ah, ak soppe bu koy dégg te soppatu yàlla mhm. te man caa dugal saw ñàkk nga doo saw ñàkk bu ne suba maago suñu bisi fal alxuraan gi nag mhm. lañ fa séene dajee ca Mbakke mhm. deux heures bëgg a dajee ca mbaar ma waxtaanee fa yëglu sëriñ bi boo ñu ñëw ñu ñëw bu ñëwee itam mboolem lañ fa liggéey de boobu ba léegi lépp lañ fa seen a yëkkati jox ko mu xool ñu ba téer ma ndey nag ñu Hmm. kuréel gi ñii tudd yàlla rek wala ñi koy safoo it mën nañ seetaan bi. ñu hmm. hmm. kuréel bi. damaa wax léegi ne. kuy tudd yàlla. kuy tudd yàlla. te yaakaar di sëñ Tuubaa sa jëriñ di Cheikh Fall. daa am ñu ko yalu. am ñu ko yëkkati ca kaw. kon soppe bi bokk na ca. alhamdulilah waaw loolu de leer na nañ. Ah, sëñ Maodo ko yàlla ñu ko dul ca kaw. sëñ Maodo na ni eh, ñu ngi si catal jotaay bi. jotaay bii mënu woon ñàkk sëñ lu baree baree feeñ na si. te sax incha ndax boobee génn lay doon mm. dinañ leen fekk si fekk si mm. ñi nga xay ne ñooy euh, mag ñi yàlla nañu suñu borom gën a yàggal ñoom ñi nga xamante ne ñoo fi des si wàllu sikar ñu mën a fekki leen mm-hmm. waxtaan ak ñoom si lu bari te dinañ leen fekki yéen it ah, incha allah mu doon jotaay bu ñuy waajal sëñ Mamour mm-hmm. waaye lii moom mënul woon ñàkk mm-hmm. euh, muy seen euh, jëmm yi tedd yi macha allah nga xamante ne ku leen gis maanaam ñu toog te waxaguñ wala sikkaruñu rek maanaam mbégte gi nga am sa xol ndax tur yàlla ni mu mandee si ñoom ak ni koy defee te mu dëppoog bëggu Cheikh a Fall mhm. kon ñu ngi ñaan képp koo xamante ne yaa ngi yëkkat bi nga roy si mhm. xam ne loolu rek moom mooy ndigal li sëñ Maam barkalla jërëjëf sëñ Aline Badara mhm. jërëjëf euh, am na solo lool leeral bi indi nga lu am solo euh, sëñ Ousmane Diouf moom moom moom ko yàgg a safoo sax ndeysaan maa ngi koy door a xàmmi nii sax nag <laughs> yàgg naa ko safoo lool nag <laughs> ca Touba waaw sëñ Ousmane Diouf Sikkur la jàmbaar la lool ñu ngi ñaan nga yàgg fi lool te ak moom Cheikh Ibrahima Fall sëñ Mourayda euh, jaajëf tey moom sant nañ la baax yow moom yow yow xam naa ah, xam ni moom moom na waaw <laughs> te di ko jaajëfal nag si lu rëy li na ko ci màggal Touba gi mm-hmm, mm-hmm. xam ne jotaay bu rëy bi ñu doon def buntu kër Sëriñ Saliou waaw keroog mu def si lu am di ko bu baax a baax moom it la moom baax Baye Moussa Kalaam laa a mm-hmm. yi muy àndal nag eh, sëñ Bara Fall moom tam ñu koy ziar bu baax moom Baye Moustapha Fall moom sëñ Modou Lamine Fall ñu koy ziar bu baax a baax waaye di ziar bu baax a baax euh, mboolem njaboot gi yëpp tam di njabootu sëñ Bassirou Fall nag nga xam ne ñoom sëñ Bassirou Diouf ak ñoom tam ñu yàgg a jàppale sëñ Cheikh ci ci wi la ñu di leen ziar bu baax a baax sëñ Makhtar Niang mboolem waa moom ñoom yëpp ci daayira lañ bokk ak Makhtar Niang ñoom yëpp di leen ziar baax a baax waaye di comme ni ñu ko waxee rek rek xam naa incha allah euh, defe naa ne kon bi samedi lay doon wala dimanche siyaar bi samedi lay doon incha allah kon ñu ngi koy fàttali mboolem ñi nga xam ne ñu ngi topp télévision bi samedi incha allah euh, la euh, bi war nañoo dem ziare ji Serigne Cheikh jëm seen addiya ah, waaw comme ni ko sëñ la ñuy dajee ah, mm. waaw ci péncu Paleen àndandoo dem ziare ji Serigne Cheikh jëm Fall ñu bàyyi ci xel baax a baax waaye xam nga ni tam buñ gàmmo ba ni suba suba la bis bi del si tam bis boobu la maam Cheikh Ibrahima Fall amee ngërëm ci Serigne Touba Cheikh Khadim nga xam ne bis boobu Serigne Bassirou Fall moom Serigne Mbacke Fall Khary Diop moom eh, nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall moo ko teg ci loxoom mu di ko woote ca janatul maxwa ca foofu nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke moo ko sédda woon njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina ñu deen ko fàttali bu baax a baax incha allah du ñàkk ay ay yeneen jotaay sax mi ngi sunu kanam eh, xam naa itam buñ gàmmoo ba ca bis ba defe naa alterné suma ma la bis bay delsi mm-hmm. ndax alterné mooy doon gàmmu mm-hmm. eh, bu dellusee defe naa eh, ci njaarim ñu fàttaliku soxna maam Oumy Fall mi nga xam ne mooy caatu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax 1929 la gën a jamono mm-hmm. kon at la fi def ak bàyyam Cheikh Ibrahima a baax mu nga xam ne moom it ñoo bokk Cheikh Ibrahima Fall bàyyi Mouridina mm. moom it benn la Cheikh Ibrahima noonu benn bi dana barkel benn la ci

ñaan mu yàgg fi lool di ko ziar bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ziar mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yëpp nag di leen jaajëfal bu baax a baax tey ñaan sans borom defal leen jàmm ak xéewal gàmm gi ñu dégmal nag xam ngeen ne njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy wootee fële ca Thiès mm. ndax Cheikh Ibrahima Fall fa la daan gàmmoo Serigne Cheikh jëm ak mbooleem njaboot gi yëpp mm. ñu ngi fas yéene gàmmoo foofu ci Thiès muy Kawsara mm. muy muy bi dem gàmmu ji tey Euh, dem ci jàmm dellusiwaat ci jàmm daje cee ngërëmal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba Cheikhul Khadim ak maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouride sëñ yàlla si waaye waa Gébbu Fall yi nag fàtte wuñu leen de hmm. ñoom Mbaye Aba ñoom ndeysaan ñoom ñoom Aba euh, euh, ñoom Babacar ñoom Babacar ñoom Cheikhou ñoom Cheikhou ñu ngi leen di siyaar bu baax baax mboolem kuréel gi waa Touba Gébbu Fall mhm. ci su am solo si nga xamante ne ñu ngi koy def saa su ne mhm. foofu si mbaaru Cheikh Mamadou Mourtada mhm. ca parcelle ñoom it kon kuréel gaa ngi nii rek Mm-hmm. ndax ñoom tubaarkaala sagub ku euh, bàyyi faali lañ fii ci ndakaaru mm-hmm. euh, ci ni nga xam ne moom lañ koy taxawoo mm-hmm. kon kuréel gaa ngi noonu di sant bu baax a baax mbokk yi si taxawaay bi si gàmm gi nga xamante ni ñu ko ànd ak sëriñ bi euh, ci ci ci Thiès di ziar mboole mbokk yi rek kon bis baa ngi noonu ñu ànd waajalit kon gannaaw gàmm gi bisub Serigne Bassirou Fall alquran euh, bi nga xamante ni mooy euh, bisu ngërëmu maam Cheikh Ibrahima Fall te moom tawféex euh, di ko taxawee foofu ca Touba Moul Khoura jannatul Mahwa ca Baye Fall ga kon di si woo mboolem mbokki Baye Fall yi lay xam ngeen ni kon altine bi lay doon yemoo kon. Euh, gàmm ba bis ba di waaj a dellusiwaat maanaam euh, gàmm nan euh, ci dimanche gi kon nu bàyyi ko xel bu baax a baax foofu ca Baye Fall ga di wax ni kuréel gii nga xamante ni moom mooy daayira xidmatu maam Cheikh Ibrahima Fall zikrullah mm. bi nga xamante ni sëriñ mam Cheikh Fall moom Cheikh Serigne Hassane Fall ñu koy xama wax ci mam Cheikh Jikrou la di ko dàkkantale moo jiite kuréel gi moom ak Serigne Cheikh ndoy Baye Fall mi ñep xam kon en tout cas mbokk yi nga xamanteni ñom lañ ko andal ak mbollem ñi nga xam dañuy yëngu ci walu sikar kon ku ci bëgga tabbi numéro yaa ngi nii yaakaar naa bi ci kaw serigne moo da moy sa numéro di 77 780 23 74 bi ci teggu it kon di numéro Serigne basirou ñass mi nga xamanteni ni soo ko woowee ci 77 398 98 88. yaakaar naa li nga bëgg xam ci kuréel gi yëpp di ko ci xam. Hmm. Uh, beneen numéro bi si tegu it xam naa ni di numéro uh, Serigne uh, Ousmane Diouf. Hmm. di 77 234 12 12. yooyu nag incha allah dinañ ko affiché kon mbokk yi kuréel gaa ngi nii. di kuréel gi nga xamante ni maanaam gulet mu sosu. ci ndigalu kon maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Fall jëm ba mu soosoog léegi toll na si at kon jaajëfal leen bu baax a baax mbokk yi euh, di leen jox daje incha allah beneen euh, jotaay bu xëy ni rek dinañ génn dem euh, nemmeeku ji mag ñi nga xamante ne ndeysaan ci wàllu si sikar ngeen see indiwaat mm. ngeen mbokk yi moom tur yàlla yi rek la ñuy safoo mm. jaajëfal leen bu baax a baax xam naa ni Euh, bàyyi ñu tàggoo ci benn air rek si benn minute rek ndax fi mu ne waxtu yi <laughs> jeex na waa xiru daawaanaan alhamdulilah. laa ilaaha illallaah. laa ilaaha illallaah. laa إله إلا الله